بسم الله الرحمن الرحيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة بها عناد البشر ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالله أستعين في كل أمور وعليه التكل في كل الدهور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ñu ngi nekkoon ci suuratu Naml tolloon ci aaya juróom benn fukk ak benn fa sunu borom wa taala doon ñu poser ay question question yi nag yi passé yëpp yëpp maamu kenn mënu ko mm-hmm. kenn nit mënu ko mm-hmm. yooyu mm-hmm. yi war ne moom dong moo ci wéet ci jëf wéet ci ci xam yooyu la doon jàngale foofu le ci question yooyu yooyu nag la continue bu ne am man yu jiibu ana kan mooy wuyu al mudtarra aji loru ku feebar mm. mbaa ku jàq mm. mbaa ku jaaxle mm. nekk ci ay situation yu tara tara tar yu difficile nee na ana kan moo fay wuyu di fa xetti nit kooku ida daaw ndegam ñaan na yàlla am na fa moom dong moo ko kon moom dong mooy ki nga xam ne tabaarakallaahu boo jaaxlee ñaan mu wuyu boobu jaaxle amoon booy tudd leneen ñu ne yee tudd leen yàlla mm. ndax ndax ne moo ci mën a génne gars yi mm-hmm. tudd leen yàlla tudd leen yàlla boobu mm. mm-hmm. mm. bi dafa toog ci jotaay ba mu yàgg mu ne seen àdduna bii de ñetti li ma yàlla bëggloo mooy loolu ñuy wax parfum ak jigéen ak kiimaan yi mu làmboo julli mm-hmm. Seydina Aboubacar nag man itam ne ñàkk na ma fi yàlla gën a mm-hmm. mooy di la xool fu mu mën a toll mm-hmm. di jël sama alal di la ko ak toog ci sa kanam di la bégee rek loolu rek doy na ma man hm, li mu bëgg ñëpp bëgg nañ ko di ak di karawaase samay noonu <laughs> xam nga Seydina Omar moom naxal ak wattu frontière yàlla yi fi yàlla yem nga taxaw fa jon bañ ko romb mhm. Seydina Ousmane ne man ne ñett laa fi gën a bëgg mhm. dañ ma fi gën a bëgguloo mhm. romb ay nit ñu xam maag ma ñàkk leen a xam ma leen asalaamualeykum di defar ay ndogu ay añaki reere ki ndékki di ko jox jaami yàlla yi rek yàlla tax bàyyi ba suuf sedd may naa fi la gannaaw bu nit ñi nelawee man da suñu naa li man de ñett lañ ma fi gën a bëgg loolu mooy gàddu sama jaasi jii di ko dóor ci loosu ñu lu rasulullah ak it di woor ci mbuuyu mu tar lool xam suñu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ak it am gan sonn ci moom lool tiraangal gan jibril ni man itam de comme maa ñëw ci diggante bi di nett li yëpp lu muy xewee man ñett laa fi bëgg lañ la fi bëgg lool hmm. fekk ko xamul aw yoon hmm. ma gindi ko teg ko ci yoon ba hmm. yàlla dég ci moom fekk ko ñàkk ma dimbale ko di wéttali waxu borom bi dellu ci borom bi borom bi ne man loolu tax ma indi wax ji nag li ma soxla mooy li ci yàlla wax ne man itam ne ñett laa gën a bëgg mooy ñi nga xam ne dañu def njuumte ba yëg nañu def nañu njuumte seen diggante ak seen borom seeni rongoñ di tuuru ngir njuumte yooyu mm-hmm. danga nga mm-hmm. dégg mm-hmm. ak it di duma ñi nga xam ne dañuy def bàkkaar te tuubuñu ko ñooñu de yàlla leen a bëgg naa ñuy def bàkkaar te arrière ñooñu daal jàpp jàppante ñoom waaye li ma soxla moo ijaabatu daawatil mudfarina mooy tolloo bi ñu soxla ci aaya bi doon de xadis bi ñu fi indi loolu yëpp dégg nga wax Mm. ak it di nangul ñaan ñi nga xam ne dañu loru mm. toll ci ay xate-xate mm. ay jafe-jafe tabaarakallaahu ñooñu it mm-hmm. mm-hmm. moom yàlla a suu alu ñaaw wa yàlla ko mu def leen yéen nit ñi xulafa al ngeen di ay kuutaay ci kaw suuf maanaa mm. ngeen nekk fi ay xalifaam mm. di doxal mission mm. na mu jaadoo waa damay laaj a ilaahun ndax am na fi yàlla maallaahi bu ànd yàlla buy jàppale lii si yàlla ji su nekkee ci xat-xat ndax dafa am yàlla ju koy jàppale ci xat-xat yi ba mu tegg ci kaw kooka déedéet mu ne alors xalilan du néew maa lool te zakkaruna ngeen di jéem a dégg nga ñaan googu nag dañ ci bëgg soo koy def itam maanaam sooy ñaan yàlla nga taal loxo ndax am yési bés sànni dana wax ne damaa mës di ñaan yàlla génn sama benn loxo tàllal rek beneen bi génnewu ma ko ngir sedd bi dafa tar sedd bi jàpp benn loxo bi laa génne <laughs> nee na ma tëdd guddi rek dina law gis loxo bi ma tàllal mu fees de lag beneen bi yëttagul dara ñu yow ma ne ma ba ñu weesal mooy ba nga tàllaloon bii nga tàllaloon nag comme tàllaloo ci woon kenn du ci def dara. Mm-hmm. kon bëgg nañu booy ñaan it nga yëkkati sa loxo. Mm-hmm. sopp nañ ko donte am na wutul na. Mm-hmm. ndax après war nga kaa taf ci sa kanam waroo ko jaataf ak yëkkati gaal nàppati gaal. loolu bëri na lool. donc boo demee ci ci baaturaag bi. na ko Seexul Hajj Maalik indee foofu. dégg nga. nee na am may yahdiku. ana kan moo leen di gindi. di leen orienté yéen nit ñi. yi laay wax. fii zulumaatil barri mm. ci lëndëm lëndëmi jéeri ji mm. wal baxri mm. ak géej gi ana kan moo leen de orienté ngeen xam ne yoon wii moo jëm dëkk sàngam moo xam ci kaw asamaan si la war avion yi moo xam ñi nekk ci kaw suuf si la ñu dox ñu catan-catan yi wala ñi nekk ci géej gi tabaarakallaahu kan moo leen di orienté ba ñu xam fee la ñuy teere jeeg fee la ñuy nangam nangam yëpp kan moo leen defal loolu mm-hmm. kenn dégul leen loolu pour yàlla mm-hmm. dégg nga wax baax mm-hmm. waman yursilha kan mooy yabal hmm. ariyaaxa ngelaw yi hmm. busran mbir hmm. moom ñuy woy dégle bay na yeday rahmat yi la njëkk taw bi wàcc bu yàlla jëkki nii ngelaw li sàkk ñu ne wa sàkk na ngelaw li commencé ñu ne wa sàkk ana kan mooy ki nga xam ne moo leen di defal loola waaye itam ana kan mooy ki nga xam ne moo leen di gindi ci lëndëm lëndëm yi nekk ci seen xol jëme leen ci géeju sariya wala jéeri sariya ak géeju xaqiqa ba ngeen xam ne lii mooy sawaab ngeen topp sawaab boobu waaw kay kan moo leen di gindi ngeen déparé ci ilmul yaqin ah wala jëm waaw jëm ci aynul kan gannaaw ngeen jugee fële ñëwaat ba ci xàqul kan moo leen defal loola yàlla mm-hmm. a ilaahu ndax am na fi yàlla mm-hmm. maalaahi bu ànd yàlla ci jëf ji muy jëf ñii di orienté nit ñi di leen teg ci aw yoon kenn du réer kenn du sànk ndax am na ko ko fi def gaa yëpp ne sëmu dëngal ay loos mu ne alors taala mm-hmm. kawe na lool amma yusrikuun wëlis li ngeen koy bokkaale ak yàlla sori naak loolu bokku sa lool mu sampaat beneen amman yabda'u ana kan mooy sos maanaam bind hmm. alxalka bindeef yi hmm. bañ nekkul dara hmm. mu nekkal leen dara summa yuiduhu topp mu delloo si leen dekkal leen gannaaw bañ nekkulee dara mu nekkal leen dara bañ nekkee dara mu nekkadi leen dara gannaaw ba mu nekkalaan leen dara gis nga suma bi wan ne étape yi sore sori la alfaa li tarti biti sàlli summa li tarti biti sàlli kon étape par la mu sampaat waman yarzuqukum hmm. ana kan mooy ki leen di wërsëgal hmm. bina samaay ci asamaan sii hmm. wal arda suuf sii kan moo ci wàcce kaw gàncax yi sax kan la dine wërsëg nag dañuy wax ne ñetti xeeti wërsëg a am wërsëgu jëmm yi dafa am wërsëgu xol yi am wërsëgu ruux yi am wërsëgu jëmm yi tabaarakallaahu comme ni nga ko xamee mooy di añ di reer ndékki wërsëgu xol yi nag mm. mooy yattin bi mm. mm. ngay am sa digganteeg sa boroom ak dal gi ngay am sa digganteek sa boroom wërsëg wi nga xam ne nag mooy wërsëgu ruux yi mooy déeyoo gi ngay déeyoo la ak yàlla di waxanteeg moom sa ruudi ci bég baarakallaahu lii rek la mm-hmm. te wërsëg nag benn kenn du ci joxe benn kudul yàlla suñu boroom yàlla rek a joxe yi mu ne laa mu ne waat ay daahun ndax am na fi yàlla maalaahi bu ànd ak yàlla ci jëf jii ci xeeti wërsëg yii mm-hmm. xeeti taw mm-hmm. xeeti saxal gàncax mm-hmm. ndax am na ko ko fi def keneen ku dul yàlla wala ko ko ci jàppale pour yëf yu sotti amu fi tontu wuñu ñu ngi ne sëm mu ne ayca ci ñal naa leen de pour leneen haatu indi leen burhanakum seen ay lay yi wane ne am ngeen fi ñeneen ñu fiy jàppale yàlla di mën a def lii in kuntum ndegem nekk ngeen saadiqiin hmm. di way wax dëgg hmm. ne lii ngeen di wax hmm. seen digganteeg moom dëgg la na leer gaaw léegi wax ngeen dëgg waaye ma yaakaar na waxuñ dëgg xul ne leen laa yaalamu du xam mu xamul man fi samaawaati ñi nekk ci asamaan sii moo xam malaayka yi wal ardi ak ñi nekk ci suuf sii aduna bi di catañ catañ fu leen neex na naam daraam hmm. xamuñu hmm. alxayba hmm. kumpa dara lañ ci xamul lépp yàllaa ko xam mooy seet ku ko neex nag mu compal la ci as lëf nga xam ko ndax falaa yuzhiru ala xaybi ci yëf yi te mosal nga day day am limite kat ok illa ku dul yàlla xamul kumpa yi yàlla rek a xam mm-hmm. wa maa yas'uruun mm-hmm. waaye ñoom yëguñu mm-hmm. ne yàlla dong moo xam kumpa yi wala xamuñu ay yàlla yu baax suna kañ leen leen di dekkal sax nag yomal xiyaam kañ lay ñëw ak mbir ma li ma tëddee la muy xewee dara lañ ci xamul ndax dañuy jekki-jekki rek ne xuntum dee lay xew-xew balli bi nekk mooy daaraka jot na ni ma gisee daal mooy jot na yegg na bi maanaam ay moom seen xam-xam hmm. fil aaxira hmm. ñoom daal ñi ngi jaay gëstu bu tar hmm. ak mën a lëñbëtu gu tar ba wane ne seen xam-xam daal xam na lay xew alaaxira na mbir yee tëddee ah, dara lañ ci xamu lépp dañu ko réere ah, ndeysaan sahlum abdoulah tusari daan wax ne nit mooy lu yàlla lu gën a bon ak réer te lu gën a bon ak nag mooy jaxlu mu rakkab xam nga jaxlu dafa nekk ñaar basit dafa am ak jaxlu mu rakkab jaxlu basit mooy nga xamuloo yow nga nag nga xamuloo continué di neex naa faj ndax moom yëg na jàngoroom te mi ngi jéem a faj mooy la ñàkk xam dem na ci ñi xam pour ñu teg ci aw yoon waaye bu fekkee jaxlu mu rakkab la nag moom <laughs> borom day yaakaar ne mooy fóori ju mag mm-hmm. moom day réer te du yëg ne dafa réer mm-hmm. ba pare jàpp ne moo tax daara ji nag saqaamul mm-hmm. xirsi laysa lahu shifa mais nag wa daaul jahli laysa lahu tabib loolu <laughs> kenn mënul dégg loolu booboo nee seen xam-xam àgg na ci àllaaxira ba yaakaar na ñoo ko xam te dañu ko réere bal li nekk mooy hum ñoom fii shakkin mm. ñu ngi ci sikki sàkka mm. min haa ca yowmal mm. ak na mbir may tëddee xamuñu ci dara dara dara dégg nga de dégg nga de mooy hum ñoom am way silmax lañu ba li wax di ko jàngale mënuñ cee dégg dara lañ ci dara lañ ci mënuñ xam mm-hmm. dégg nga wa qaala na alladina gaa nga xam ne kafaru weddi nañu alquran we di dekki kàddu yi hmm. lañ daan dégaase ci kanamu rasulullahi suñ ko buggaane mokke hmm. daañu wax na a ida kunna hmm. ndax suñu demee ba nekk mujj nekk turaban di suuf waa baaw naa suñ ay baay maam ñoom nañ nekkee suuf ñu ni ñuy nekkee noonu suuf a inna ndax ñun daal la muxrajuuna ñu ñuy dekkalaat lanu waa ndax ñun daañu dekkalaat bu boobaa hmm? ñoom loolu lañ doon laaj ndax daañu dekkiwaat daañu génn ci bàmmeel yi kon ñu ne ah pour na am mais laqad waxit naa digee foon na haada dekki googu nax nu mu ñi wa abaaw naa ak maam ñoom min qablu la jiitu maam ñoom loolu lañ leen daan tiitale ñun ñi nga xam ne ñooy seen i sët sëtaat loolee lañ ñuy tiitale di ñu ko menacé wane na dekki am waaye ñun sax xam naa ne gunnu hmm. in haada hmm. déet kàddu dekki am hmm. gannaaw ba ñu nekkee suuf ñu moxoñoo nekkul illaa asaatirul awwalin lu euh, léebi mag ñu njëkk ñëkk noonu noonu lañ baax na njëkk mag ñu njëkk baax na daa ngeen ci xam dara si war ngeen gaaw ndaw ci ba ngay amee tànk xul siiru dox fil hmm. bi ci adduna bi waaye dox gi nag doxu xalaat la hmm. xaw ma dox leen tukki leen hmm. fu ngeen ketang ketange fa fanduru ngeen xool xoolu xalaat dégg ndax dañuy wax ne dégg nga nga toog benn heure xalaat ko ci yàlla ji moo ëpp doole jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at xalaat ci yàlla ji géej hmm. xalaat asamaan si hmm. ci kéemaan yi daal bu hmm. ndax boo ci xalaat rek dangay ngay tëm sax ba mujj gëlëm faat nee na loolu moo ëpp doole jaamu yàlla juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki at buñ ne fan duru rek bu leen xool nii rek mais tukki bi foo fi dem rek na nga am loo fi jàngee ci yàlla fan duru ngeen xool xool ak jàngat kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mujrimiin dégg nga maam mujj ñi nga xam ne ñoo weddi wan yàlla fa ñu mujj ak suñu borom dee ba jeex hmm. noonu rek la hmm. kon nag yow yonent bi hmm. wala tahzan bul jàq bul tiit alayhim ci ñoom te wala takun bu bul nekk fii dayqin ci xat-xat mooy tiis tiisu xol ak jaaxle mi maayam kuruun ci li nga xam ni ñu ngi la kay fexeel di lekk tegal ay ndëgg sarax loolu daal bu la ci dara jaaxal dégg nga ak doy ko nag suñ ko waxee hmm. maa daaka bi xiir sudur hmm. wala yëpp fii am kinatil hmm. yadur loolu la woykat ba wax ne ak doy ko suñ ko waxee mooy loo xam ne dafa ci sa xol naqar naqar yoo xam ne yaa ngi ci sa loolu mooy ab day ak di yëkk suñ ko waxee mooy place bu xat kër gi dafa xat néeg bi dafa xat léeg-léeg nga gis gaay bi ñu ñaan wasifa fii baytin ak fii daytin kon nag yaakaar naa si daaj mari bi ñaan ñaantoon pour place bu yaatu il faut que loolu tax a ñaan comme ni day tin mm. li ka naqari fii ci tubaab yi fii mm. ci ñu def naka suuf noonu ci wàllu yàlla mm. mooy fii day tin loolu mooy wala takun fii day maa ko moom comme loolu mooy différence ñaari baat yi soo ko ci sa dëng lay nekk du yëpp nag mooy place bi nga ne bi ngay jaayee bi ngay nangam nangam yaa xam daal loolu mooy seen différence ñoom ñaar daa nga lépp nag yàlla la ci musul wa yaquluun mm. daañu wax ne mm. xool bu lool mm-hmm. mata haagal waadu mm. rendez-vous bi kañ la in kuntum saadiqin da ngeen wax ngeen dëgg mm-hmm. kon ne leen asa amaana an yakuna nekk loolu ñu leen di dig radifa jege lakum ñeel leen baadu ladi lenn ci la nga xam ne tastaajiluun mm-hmm. amaana lenn ci li leen di tëkkoo di leen ko dig mu nekk lu leen jege lool te xam leen li ngeen di yàkkam hmm. amaana mu nekk lu leen jege loolu te xamu leen ko yéen hmm. dégg hmm. kon nag nañu def ndànk ñoom ci la ñuy wax wa inna rabbaka wér ne ne sa boroom la zu fadlin boromu mbaax la moom yàlla boromu xéewal la dégg nga de alal naasi waxul alal muminin mais alal naasi la wax dafa dugal ñëpp ndax ñëpp a yëg affaire bi ñëpp a ciy xéewal walakin waaye aksaruhum lépp ci ñoom laa yaskuruun mm. nit ñi la ci ñoom mm. duñu sant yàlla mm. xéewali wér gi xéewali xéewali xéewali dara ñoom daal lañ tegagul seen bët rek lañ teg bët mm-hmm. lañ gisagul daal la ñuy yàkkamti mu ak si mm-hmm. ba xam ndax dëgg laa dëgg waaye li ñu xasee moom bokkutul ci li ñuy libaale mm-hmm. te loolu du noonu te la nga tegagul sa bët lii nga teg sa bët indi bu fekkee yaa ngi lan la in shakartum la azidannakum loolu koy indi di dégg way nara rabbaka naka sa boroom hmm. la yaalamu xam na bu baax hmm. maa tukinnu hmm. lépp loo xam ne daañu ko nëbbu ñoom nit ñi suduruhum seen dënn yi li seen dënn yi nëbbu ci ay ñaawtee ci ay jikko yu ñaaw jikko yu bon sama borom dina xam naa lépp wa maa yu'linuun ak li ñu am fitu feeñal ko lépp xam naa ko dara ump ma ci man yàlla dégg nga bu baax mm-hmm. waaw mm-hmm. wa ma min xaibatin mm-hmm. amul lenn lenn loo xam ne day nëbbu di làqu fi samaa'i wal ard amul lenn luy làqu ci asamaan ak suuf illa fi kitaabi bi lu na ci ab téere mu biinin bay aji leer naññ naññ naññ dara réew yàlla dara mu biin inna haadaa naka alquran ji ngeen di jàng ni wala naka li ngeen di jàng alquran alquran yaqussu day nettali moom alquran ala bani israil ci bani israil aksara alladi lu ëpp ci la nga xam ne yaxtalifuuna daan nañu jooy juuyoo mm-hmm. fii ca mm-hmm. la ëpp ci lañ doon wuute mm-hmm. ak a coowaloo loolee la ñu alquran di ñu nettali fi bañ xam ci fuñ ciy teg suñ tànk dañ leen coowoo ci mbirum yent yàlla isa masiix ak yu ni mel coow yëpp alquran dikk na jaar ca leeral ko ba mu leer lépp loo xam ne rek am nañ ko wuute rek bu ñëwee ci alquran mbaa sunna fekk mu leer fa nañ nañ nañ nañ nañ noonu la wa innahu naka la hudan njub la gindee la moom alquran di orienté nit ñi pour lan ñu jub ci waaye wa rahmatun ak yërmande la moom alquran ci ñan lil muminin ñen ñi nga xam ne ñoo gëm bu fekkee jëfandikoo ga am nga am na koy jëfandikoo daal yiw lay doon ci ñoom Mm. waaye suñ ko fi bàyyee mm. dem ci lu kenn xamul mm. lu leen dal rek munu xam ne ñooma mm-hmm. innaka naka yow sallallahu alayhi wa sallam ah man maa waxul wu wétti kaay wax la dëgg nee na inna rabbaka naka sa boroom yàq di dafa atte baynahum seen diggante yawmal qiyaam bi xukmihi ci atteem bu maandu ba hmm. mooy ëllëg hmm. yowmal qiyaama hmm. dossier yëpp la yàlla di teg ci kaw taabal bi tracé yëpp ci maandu te moom fii la mën a am waaye fële amu waaw fële moom wàllu lay seli linsaani illaa maa sahaa rek waaw foofu moom loolu rek a faam kenn ku ne daal la nga defoon daa ko gis ñu la ittara ci taabaka foofu moom kenn ku ne sa dossier bopp yaa koy plaidé sa bopp kenn du la ko plaidé woo moom mm-hmm. yàlla mm. al mm. mooy aji not ci nguuram mm. al alim mooy aji xam na muy àttee kenn ku ci ne la nga yelloo ak la jaabi ci yow mu def ko ca koo koy yàlla fatawakkal sukkandikul làqul alallahi ci yàlla suñu borom innaka naka yow sallallahu alayhi wa sallam bëgg naa nga xam ne alal xaqi hmm. yaa ci dëgg hmm. almubiin hmm. bay aji leer nga xam ne tabaarakallaahu mooy leeral li jullit ñu nekkee ak li nga xam ne ñeneen moom la nekkee alquran mooy leeral loolu lépp ba mu leer waaw pour delloo rek yonent bi daal fi nga jàpp foofu la dara loolu la ndamut continuer ñu nekk alal xaqi mubiin ah yow nag yaa ngi sonn hmm. waaye ñi seen déggeekaay yi ñu déggee hmm. dama ko yàq hmm. mënatuñoo dégg dëgg ba nangu ne lii dëgg da saa boo ba pare daañu ne waaye wala nangam nangam lu la ñu teg ko dégg innaka naka yow sallallahu alayhi wa sallam laa tusmiu mënuloo déggal al mawta way deey mënoo dem ca ña faatu tabaarakallaahu mm. nga leen di déggal li li may wax munul ne maanaam mm. daf leen nur rek comme ñu existé suñu rek mm. comme ñu nekkatul rek ñoom yéeféer yi wala ku dul dégg alxuraan suñu borom dalaa jàppee comme ku existé wul loolu rek wala tos ma mënu la déggal itam asumma aji tëx mënoo kaa déggal adduwaa yi di koo xam ne dafa tëx xamul jëmal ndeyjoor xamul jëmal càmmoñ moom kay loo ko mën a lu liyaa du ko xam wax ko ko ba pare ba mu gestu la nga ne ko defal nii toppal day joor wala toppal càmmoñ wala avancé rek nii rek nga mën a xam waaye wax dong déedéet mun na la yéeféeri nag comme yu tax dégg nga ko baax euh, ida wallaw ndegam du mooyu nañu mudbiriin di way joxe ginnaaw wama anta dér yow yeneen bi bi haadil om yi ngay aji mën a gindi mm. silmaxa wala di aji mën a gindi way silmaxa yi hmm. an dalalatihim hmm. ci seen cànkute ga hmm. ñi réer tama namm ci ñoom ak réer mënuloo fexe fexe fexe ba nangul yàlla ndax la waroon a def bu ñu taalee seen données yi ñu mën a am connexion bu doy bu baax a baax loolee laa coupé boo ci itam boo taalee itam seen portable yi am na digo mooy seen xol yi seen ruwa dégg nga de hmm. in tusmiu hmm. déet ngay mën a déggal déggalu nangu hmm. koo xam ne boo ko partagé mu dégg liñ ko partagé ci li fi illa man yu'min lu dul koo xam ne dina gëm bi ayaatina suñu alquran te waxum ñoom muslimuun ñuy way sellal ngëm ga tege ko ci na suñu borom bëggee euh, muy jàngale boobu nag benn xeetu daaw boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne day ñëw ci mujj ak jamono jël daaba ju doy waar la ñu koy wax jassaas wax nañ ne guddu ñaay bi dem na fanweeri meetar dégg nga baax ku mu jàpp la ku ko dàq doo ko jàpp lii doy na kiimaan jàpp la ku ko dàq am na ay tànk nag am na it ay dunk mm. ak i mbagg mm. yor it bopp yëkk mm. bëtu mbaam ko noppi ñay da nga maam euh, doq giléem comme banjoli dënnëb gaynde la yor yor melokaanu sane ndiggal muus kii de yim jaxase bëri xam ngeen ne <laughs> genn xar ndëfuñu giléem yii la yor melokaan yii la bindoo ñuy nettali ne Seydina Isa hmm. alayhi salaam hmm. saa bu ñëwee bay kaaba gi hmm. ànd ak jullit suuf si dana baj baj yëngatu yëngatu boo xam ne bañ nekk di wër fa lay yëngatoo bu ñëwee ci mujjug jamono yëngatu goo xam ne ah benn xeer ca boori safaa wala ca safaa dana yëngatu ba xeer wi xar su ko defee daaba jooju nag dana fa génn waaye fu bopp bi commencé génnee ba fa jeexee dana man ñetti fan mm-hmm. waaw kooku de xam nga diggante bu yàgg-yàgg la kooku de yàlla mu ñu ump mm-hmm. ndax raglu na moom mm-hmm. su ko defee nag nit ñi dañu tiit jëm ci julli tabaarakallaahu guddal julli ga lool ngir lan bëgg caa mucc rek tabaarakallaahu jénn daabala jàll xam ne daal comme ni ko yéen bi jàngale dana ñëw ca axiru samaan tabaarakallaahu dégg nga mm-hmm. loolu dafa mel ni mu ne loolu daal la fi yéeféer yi xaar mm. xaaruñu fi leneen mm. lu dul loolu te su dikkee nag mm. day waxanteeg ñoom ci arab buñu dégg mm-hmm. arab lay wax de daawa bu ñëwee daa gi wax nag xam nga ne adduna bu tukki la mm-hmm. ku seen de wa ida waqaa bu tàbbee mooy bu saxee rek alxawlu kaddu ga alayhim ci ñoom mooy kaddu mbugal axraj naa génne nañu génneel nañu mm. lawum ñeel leen daabatan benn daaba mi ne la ardiñ bàyyi ko ci mm. suuf mm. comme noonu la ko waxee tukallimuhum dana waxanteeg ñoom moom daaba ji ànd naasa naka nit ñi di xew daal gannaaw bu mu waxanteeg ñoom kaanu nekkoon nañu rek laa yóbbu laa hmm. yóbbu ñu. Hmm. du ñu wóolu du ñu gëm. Hmm. yaayaati naa mooy dekk daal dara lañ waaye baax na. koo xam ne day texe day nangam daal dana ñëw ci mujj jamono loolu mun na ne la dégg dama toppaloon kii bi ba mu jeex dama bañ mu taxaw taxaw loolu ñu taxaw bu yàgg. Hmm. moo tax. Hmm. Euh, taxawal foofu taxawal foofu moo xool ba xam. Hmm. su yor su moom daaba ji su génnee. bokk na ci la muy yor. mooy day yor benn yat. yat woowa neñ mooy nekk yat yënt yàlla Moussa bi. yat bu yënt yàlla Moussa yoroon. moom la daaba ji yor. léegi nag. ku mu dajeeg di jullit da la koy dóor si jël leer ñu xam ne yow comme li nga doon wax léegi mm-hmm. ku texe nga mm-hmm. aljana nga jëm mm-hmm. ku mu nga nekk bi yéeféer tabaarakallaahu dala la koy dóor fii ci sa jë mu def tomb tomb boo xam ne bu ñuul kukk la ñu xam ne yow direct sawara daaba jàngoo kon nga wax ngoo ma aguto jazaakumu laahu xayran aha wa yow ah? nee na fàttalikul yaw ma naxsuru hmm. bis ba ñuy fang hmm. di dajale min ma ummatin ci bépp xeet hmm. faw jën ñu nekk ay mboolooy mbooloo li man ci nga xam ne yu kadi daañu weddi bi aayaatinaa suñu ay aaya mooy kilifa ya ak ñi leen toppoon foofu ñoom yuusaawuna ñu nekk ñu ñu dajale mobiliser leen ñoom ñëpp ñu taxaw benn place pour yàlla nag wala lijjanti seen i dossier pour mu leer dégg ku baax baax xatta hmm. ida jaau hmm. dem ba ñu ñëwal palaas ba ñuy réglé hmm. ñoom ña weddi woon yàlla ak ñeneen toppoon ca weddi ga su ko defee ñu wax leen lii nuy bëgg a wax nag waaw ñu wax leen lii nuy bëgg a wax mooy lan ak ndax da ngeen a weddi woon samay yënant ak ndax da ngeen a weddi woon sama nit yàlla yi ma fi yabaloon lu tax ngeen weddi de Mm. weddi sama yeneen mm. weddi sama nit yàlla mm. weddi gi fu mu te ko leeral le bi ayaati ngeen weddi sama ay kéemaan walam tuxiitu te peegu leen bihaa ca weddi ga alman benn xam-xam maanaam la ngeen doon contre ak di ko weddi ak di ko jabulise leen ci dara dara dara dara rek ak seen mbiri bopp rek la ñu téloo léegi nag amma za lan mooy li nga xam ne kuntum nekkoon ngeen taamalul Mm-hmm. ana lan doon jëfandikoo ci liñ leen digaloon nag léegi lu lu lu ay lay tey mm-hmm. ngeen di ko jëfandikoo gannaaw bañ leen sante mm-hmm. soobu nag su ko defee mm. ba waqaa sax na mm. alxawlu mm. kaddu mbugal alayhim ci ñoom bi ma walamu saabu la nga xam ne tooñ nañu ko fahum ñoom nag ëllëg ba lii di xew mm. laa yantiquun amuñu autorisation pour mën a àgg mm. ca kanam borom ba mm. wax jarul dégg di àddu pour di laay déedéet mënul ne suñu ne ana awalam yaraw xanaa dañoo gisul ne an nun yàlla jaal na def nanu ñun yàlla allay la guddi gii li yaskunu pour nañuy dallu fiihi ci guddi gi guddi gii mm. maa ko defal mm. pour lan mm. ngeen ciy dallu bu lëndëmee ngeen mën a dallu wan nahaara ak bëccëg bi maa leen ko defal mu bu siratan mbir moom ngeen ci way gis di dem ci seeni atelier seeni tool seeni biro seeni seeni bam jeex dégg nga pour lan ngeen ciy yëngatu dañuy def nangam ak nangam kooku nag baabi lex ci baat am loo xasaf fii am loo xasaf fële comme na nga ko jàngee bayaan ba dégg nga hmm. suñu borom ne maa leen defandi hmm. ndeysaan moom guddi gi dañuy dallu hmm. limaam xoso yi dafa am ñaari taari bi yu mos a ñëw di werante kenn ki naan nelaw moo gën ci doomu aadama ndax jamono boo nelawee tabaarakallaahu doo ci mooy yàlla kenn ki naan di xoolee gën ñàkk nelaw ndax jamono boobu ngay xam yàlla bu ñëwee ci limaam xoso yi laaj ko nag ndax nelaw moo gën wala ñàkk nelaw mu ne kii wax na nelaw moo gën waaw kooku dina xam ne ah la nga xam ne moo ci moom ah, man a ah, fal mawtu xayrun laka mina xayaat kon boobaa dee moo gën ci moom dafa bëggoon ne kooku dee moo ci moom waaye ki nga xam ne dafa wax ne dund man ah, a ñàkk nelaw moo ci moom kooku dafa wax ne dund booy xamee sa borom moo gën ci moom ak li nga xam ne moom lay bàyyi ko ci wëkk la ci yokkoog la cay nangam nangami mm-hmm. tabaarakallaahu noonu la ko doon jàngale moom imaam Xuseyri mm-hmm. dégg nga wax baax mm-hmm. ndax xam nga bu dee xasee am parce que yool moom mun naa bañ a amati am toujours yool a xam am waaw boo xoolee boo dekkee ëllëg yow man xëy amatim dund gi toujours continuer amatul dara loolu li qawmin yu'minuun nee fàttalikul mm-hmm. yow ma yunfaqu mm-hmm. bis bañuy wal mm-hmm. di ëf fi suuri ci bufta bi dégg wal bu njëkk bi suñu ko walee wal bu njëkk pour àdduna tukki fa fazi'a tiit na lool man fi samawaati képp ku nekk ci asamaan mm. wa man fi ardi ak lépp lu nekk ci suuf mm. dana tiit tiitaange loo xam ne mm. daañu yëg ne tey am na lu xew mm-hmm. diggante ñaari wali diggante bu yàgga yàgga yàgg la mm-hmm. am ñuy wax ñeent fukki at ak am wax lu ko yooyu yëpp téere bi nga ci gis ñu mm-hmm. illaa man saa lu dul ko neex na allahu yàlla mooy ñey mujjee dee ñu dul ñee dee daal mm. te mooy ñu demee ni ki ñoom jibril la mm. ñooñu daañu dee waaye àggagul foofu mm. ñoom mikaayil ak asraafil ak malakul mawti ak abdullah ibn abbas ne même suhadaa yi sax nag ndax moom yurzaquna inda rabbihim jaay tax mm-hmm. inda rabbihim yurzaquna mooy tax di mm-hmm. daañu dee waaye xam nga ñoom nii dee ak ñun suñu dee ah xam nga ne xam nga wuti tuuti mm-hmm. ndax ñoom ba léegi ñu ngi dund façon boo xam ne ku deewul noonu doo ko mën a dundee dégg hmm. wa kullu hmm. képp kenn ci ñoom hmm. daa a ah, ataw ataw la de dégg nga nañu ko daa xi way toroxlu mokk lool seen borom nee na daa gis aljibaala montagne yi ëllëg bu li dee xew daa gis montagne yi tax sa buhaa da nga joortu montagne yi te leen di gisee ñu taxaw benn place jaami daf ñu nekk lu way ba mel ni ñu mun jug fañ mën a ne dégg te moom montagne yi sax de tamurru ma ngay romb mar a saxaabi comme romb nit niir comme niir wu lay wala taxi bu lay wala jakarta waa ndax dafa am jakarta léegi man dama mel benn gis ay jakarta yu ra <laughs> ah, Sénégal a ngoog de ba taxi maa ngi créé ko ah ñetti fan yooyu waaw ñoom dañuy yett boobaale c'est fini te nit ñu ko xasee mos c'est fini du caaxaan dootu leen fi génnee de. waaw jàmm laay kay mos ma <laughs> gërëm bu ne waaw man man ko fi woon. am na lu de. loolu ah, baax baax na ci grève bi nag yëpp fii lañ ñëwoon di Jakarta. loolu baax na ci. Mm. dégg nga. Mm. kon ña ngay romb. Mm. marasiha. comme rombinu niir. niir wala romb di daw na muy gaayee. montagne yi ëllëg noonu lañ lay rombee fif fif di lii nag sunu àllaahi jëfinu yàlla la definu sunu borom subhanahu wa taala la mooy defee noonu dégg nga yàllaay defee noonu dégg yàlla ma nga xam ne at xana xereñe na kulla shay'in lépp la innahu na ko moom borom bi xabiirum aji xam la wala ku dañ ku xam biir la ku ñu xamee bi ci Mm. bi maa tafaalu ci lépp loo xam ne mm. yéen a ngi jëfandikoo mm. te nekkul lu mu gërëm lépp xam na ko moom man jaa képp ku ñëw indi ëllëg yowmal qiyaama mu moom moo ma indi bil xasnati ci yiw mooy indi na laa ilaha illallah bu sell waaw ndax dañuy wax ne laa ilaha illallah miftaaxul janna te nag caabi mënul ñàkk am bëñ fu mu a ubbi mm. bëñ ba mm. mooy fu mu toll mm. borom moom tabaarakallaahu di mën tudd yàlla waaye doo yam ca tudd yàlla ga kat da ngay moytu jëw moytu fen moytu lépp loo xam ne day yàq jëf jëf mm-hmm. ndax man jaa la wax mm-hmm. Cheikhul Hadj Malick radiyallahu daana wax ne waxul man faala de man jaa mm-hmm. ndax mën nga ci ba mu baax waaye boo ñëw du ñëwaale ngir mm-hmm. la saagoo nga kee mm-hmm. xasoon nga kee mm-hmm. nangam nangam nga kee kon fexe ba indi la wax danga wax baax foofu folowu ñeel la ko xayru lu gën mi daa ca bennam bu baax booba dañ ko ci fay fukk ba ne maay def lii kii kay xam nga ne yow mun naa jubla jublante te waxum ñoom min fasax yow ma idin ci tiitaange bis boobu di yow ma qiyaama aminuna way am lañ ca kóolute way am lañ ca sécurité mooy daañ ci dal gu sëkk waaye wan jaa képp koo xam ne dafa teeral ci kanam borom bi hmm. sa yaati ci ay ñaawte hmm. bokkaale hmm. lépp loo xam ne xeetu bàkkaar rek mu teewal ko fa ñooñu fa kubbat këppeef na wujuhuhum seen xar kanam yooya këpp nañu ko eh finnaar ca biir su ko defee malaayika dina waxoon woo xam ne waxinu saboote leen leen lañ ci jublu ñu naan leen hal tujzawna ndax fayeefu leen mm. illa ma mm. lu dul la nga xam ne mm. kuntum nekkoon ngeen taamaloon fayuñ leen lu dul la ngeen nekkoon di ko def rek moom dong la leen suñu borom fay nii innama umirtu duma lu dul santeef na man yonent bi bokk na ci lañ ma sant ma leen kay wax ana ubuda ma jaamu rabba hadihi l balda borom bi la réew borom bi la dëkk waxuñu ma jaamu dëkk borom bi la dëkk lañ ma wax ma jaamu ko Mm. te moo di màkkatal mukarram mm. ki nga moom mm. lañ ma wax naa ko jaam alladi mooy dëkk ba nga xam ne xaramahaa yàlla xaraamal na ko ci mbir yoo xam ne day xew ci yeneen dëkk yaak yeneen réew yi yàlla moom tere na fa ci yenn yi di fa am pour xeeti yàq yàq xeeti nangam nangam yi pour deret ak tooñ ak rëbb ci xorum yooyu yëpp day dugg ci xarama wala wu ñeel na ko yàlla sama borom kulla shay'in lépp lëf yàllaay borom moo ko bind da rek te wa umir fii tam santeef na ma an akuna ma bokk minal muslimiina ci ñi nga xam ne dañuy wéetal seen borom wéetal gu amul genn ak tappale gu amul genn ak raxma jaamu yàlla gu sell te rafet wala lu ak may jàng itam alquran alquran sant nañ ma itam fu ma toll may taxaw di jàng alquran sama kéemtalaay kàttan waqaf yeeg lu mu mën di doon rek mm. ma taxaw ci mm. fa man ihtadaa képp koo xam ne gindiku na mm. fa te di xamal ne gindikul na li nafsihi ñeel boppam résultat gindiku ga du dem ci baayam du dem ci maamam du dem ci kenn moom dong la ñeel li ci yàlla lay fay moom la koy jox du ko jox kenn waaye man dal la képp koo xam ne sànku na nag fa xul neel innama ana xamal ne man Moustapha hmm. wala yow nit yàlla bi hmm. minal munzirin yow daal hmm. xamal ne bokk nga ci ñi nga xam ne dañuy coupé te mooy ku def nangam am nangam ku def nangam dal la minal munzirin waxul waxal ne alhamdulilah sant ñel na borom bi tabaraka wa sa yurikum dana leen wan moom yàlla sunu borom subhanahu wa ay ayaam mooy ay kiimaanam mm. ngeen gën ko xam mm. kiimaan yi ci àdduna mm. ngeen gën ko xam yëpp benn ordel fa taarifunaha ngeen xamee ko ci kiimaan yooya gis malaayka yee ray gi ñu leen ray ba ak ak li ngay dund ci jamono yi yëpp yëpp na nga gis kiimaan saa bu na nga gis kiimaan kiimaan yooyu ngay gis ne sama borom di ko wane nee na dañuy euh, yàlla da kaa def pour lan pour ngeen xamee ci kan mooy seen borom comme li ma la waxoon rek léegi rek xalaat benn waxtu moo gën jaamu yàlla euh, ci yàlla nag xalaat bi kat yàlla laa wax waaye waxuñ yàlla xalaat ay su ma amoon su ma léeg su ma laa waxuñ loolu kat yéen yooyu waxuñ ko loolu la ñu wax wama rabbuka des sa boroom bi xaafilin muy aji yëgati amma taamaluun li ngeen fi nekkee ah da ngeen yaakaar daal yàlla daf kaa yëgul hmm. ndax yàndaxtal bii mu leen yàndaxtal ngeen nekk di caacambul lu leen neex rek ngeen nekk ci ngeen yaakaar yaàlla dafa yëgul li ngeen nekkee hmm. aha ci dara dara réeru ko ci bis la bis bu rafet rek lay xaar hmm. saar woowu noonu la day euh, suuratul xasas mooy am njàngat kon ci saar saaru màkk nag tawxiid bii saar bi doon jàngale hmm. dana ko jàngale ci beneen façon hmm. te bu ñëwee da ngay xam ne beneen façon la demee hmm. dana yàlla muusee digganteem ak chef fa mbiram euh, yàlla muusee ak yi mujj saar bi daal mën nga wax ne loolu moom dina ko wax mm-hmm. ak tawxiid yi muy jàngale ci biir mm-hmm. ni saar nekk nag mm-hmm. juróom-ñetti fukki aaya ak juróom-ñett dégg nekk ñeenti téeméeri baat ak ñeent fukk ak benn juróomi junni xarafu juróom-ñetti téeméer benn man suuf moo ci ne dégg nga ta siin miim bismillahi rahmaani rahim hmm. ta siin miim hmm. allahu bi muraadihi bi zalika hmm. ma nga wax tilka aaya wala saar wii ñii bëgg a nii bëgg ci jàngale aslëf ayatul kitaabi la taa siin miim mii ayatul bay aji way aji leeral mm-hmm. dëgg mm-hmm. ak caaxaan mm-hmm. natlu daanu jàng nettali aleyka ci yow Moustapha aleyka ci yow jullit bi luñ jàngal min naba i Moussa xibaaru yént yàlla Moussa fu mu jaaroon ak euh, euh, seeni mbir saar wi daañu ko ci nettali lépp nag wa firawna ak firawna kon sans document documentaire la bu koy jàngale lépp dañ cay rek bil xàq bëgg lu neex jotaay bi ak lu xoromu du tax ñu def ci lu ci bokkul lépp dëgg lay doon la ngeen mun sa ñàkk xam daal lépp daa ngeen ko xam pour lan li xamen ñeen nit ñi nga xam ne yu minuun daanu gëm mën cee jàngee loo ci jàngee mooy ndeka pouvoir bu yàlla rek ay pouvoir beneen budul moom tekkiwul dara mm-hmm. te ku weddi nag mm-hmm. laajal firawna mm-hmm. inna firawna naka firawna ala yëkkatiku na beew beew lu fuuy na ma doxal dictateur wala dictature fil ardi ci réew ma réew misra a yilif na ko pouvoir bépp nekk ci loxoom moo tax daal dem na ba pouvoir bi dof loo na tax ala fil arrogance la gaa yi di wax hmm? arrogance gars yi di ñëw arrogance xaw arrogance la <laughs> ñuy wax waa pouvoir bi di hmm. opposition bi dina koy naan dañoo arrogance xaw ma nag lan arrogance loolu la ñuy wax hmm. mooy alaa fil ard waaw koo jàpp rek dañu ne yaa ko lii yaa ko laa lu ma neex jaar teew ko am ah, nangam nangam yëpp alaa fil ard <laughs> baax tax na wa jaala defoon na ahlaha waa réew ma siyaan ñu nekk ay parti parti mm. ñi féete pouvoir lu mm. leen neex def mm. nu leen neexee defee ko lépp jàmm mm-hmm. ñi féete feneen ñu leen di teg di daal mm-hmm. mu nekk injustice boo xam ne kenn xamul fas kay waxee mm-hmm. yasarifu dana noggatu dana doye dana tuutal taifatan ab kuréel mm. minhum ca waa dëkk ba te mooy banu israil mm. ña nga xam ne ñoo ànd ak yënti yàlla Moussa fee di ci opposition bi mm. leen di maltraité daal ñaaw na raf métti fekk ne avant loolu moom sëriñam yi dañ ne ko woon ki doy foog ni góor lay doon ci sa pouvoir bii bañ ko gisaane lee ba pare gént fekk dafa gént génn gént moom ci boppam mu dem laaj ko ñi ñuy wax ay sëriñ mm. sëriñ yi wax ko ne ko loolu ñuy tekk nag mooy ko lay folli góor lay doon mm. mu ne kon lu ñuy tax di góor ci réew mi nana ko ren ñu nekkee noonu nekkee ba yëf yi bëgg ëpp loxo mm. mu dikk di jooytuwaat ndax bu yàggee góor dootu fa amati te bu góor amatul réew ma day gent ndax jigéen ñi buñ juróotul rek réew mënatu ta ne ndax ñoom ñëpp dañuy faatu benn par benn réew ma nag dootul amati far bu fekkoon dafa bëggoon ku mu yilif léegi dootu amati ku mu di te bu fekkee foofu jigéen ñi kenn jigéen ñi mënuñu kaa liggéey li mu bëgg lépp mm-hmm. ndax jigéen ñi duñ def aat bi mm-hmm. duñ def duñ def duñ def am jeex yu bëri ñu ne kon li ñuy pexe mm-hmm. mu ne daal ñu ne ko li ñuy pexe daal mooy suñu rayee at mi tëb at mi la ñu jëm 2023 bu ñu rayee 2024 bi kenn ray waaye gis nga yàlla li ma la waxoon yàlla du ku ñuy dàq yàlla du nit waaw yàlla moom du nit boo saa boo tëllee pexe ci sa biir pexe lay dikk yàq pexe yi nga tër loolu yëpp ba ngaa gis moon faay Hmm? gis nga biir pexe yooyu mu mu gaa yi tërloon ci at mooma ñuy ray ci la yent yàlla Moussa gane àdduna waxoon nañ la ko kon yu sabbixu dafa rendi am naa awun seen doom yu góor yi wala sax yi muy desal nisaa aw seen jigéen ñi ku judd di jigéen lam nag kenn xamul nu mu toll ray na ci bu bëree bëri góor gaa innahu naka firawna kaana nekk na bokk na mil mufsidiin ci ñi nga xam ne dañuy yàq réew mi ci ay arrêté yu bon ay luwaa bon mil mufsidiin dégg nga wan bëgg nañ ñeen yàlla an na ñu xéewalee alal ladina ci kaw gaa yi nga xam ne fu mm. ustudifu mm. ñàkkaleef ne leen fayda fil ardi mm. ñu ñuy maltraité di leen tuutal di leen xeeb di leen noggatu bëgg nañ leen a xéewale ba pouvoir bi jël si ci seeni loxo wa najaalahum ñu mujjël leen ñoom ñañ doon noggatu di opposition bi a immatan ñuy ay kilifa di ay njiit yoo xam ne ñooy jiite dëkk bi ñëpp topp ci seen man de lii laa fas yéene man yàlla te mooy am insha allah wana jaalahum ñu def leen ñoom ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon opposition bi duñu néew doole di waa ñuy way doon pouvoiru Firawna ko Firawna dee doon pouvoir kon yëf ya ñëw na ak wanu makkina pour nañu ñeel leen nañ leen jekkuloo lahum ñeel leen fi ardi ci réew mi pouvoir beeg lépp mujj ci seen loxo daal yor saam yor misra foofu yëpp wa nuriya daañu am ñu wan firawna firawna wa hamaan ak seen de gouvernement am boobu mooy premier ministre am boobu wa junudahuma ak seeni soldaar ñoom ñaar ñi leen toppoon yëpp mbir mu ci ñoom ñu wan leen maakaanu lépp loo xam ne nekkoon nañu yaaxdaroona di ko wattandiku mooy coup d'état ak rey gi ñu doon rey nit doon leen fexeel di leen tëj ci kaso yi lu ñu def leen ko lépp rek ngir lan bañ gaay yi opposition bi falu hmm? attention de moo tax suñu gouvernement yi war nañuy jàngi bopp yii de waaw ndax yii moom mat nay bàyyi xel maakaanu yaaxdaroona wax ne yemul maslumi ala zalimi ashaddu min yawmi zar alal maslum mm-hmm. góor gi bu saaxalaan nga fi yéene ki ngay noggatu mm-hmm. bis bay bis buy fayeeku noggatu ya mm-hmm. mooy gën a métti bis bi nga ko doon noggatu loolu nag mën na bàyyi xel nakaan yax dal léegi nag boo xoolee yént yàlla Muusaa ba ko yaayam ëmbee ba toll ci weeram am na sens boo xam ne tabaarakallahu moo ko doon contrôler si mooy passé visite hmm. mooy def lépp hmm. lépp lépp lépp hmm. ba yàlla dogalee nag matu gi xew saa saam bu ñëw mu rewle ko matu gi am yàlla dugal ak xeetu ci fel koo xam ne ci saa saam ba saa saam ba daal mënul boole yaay yënt yàlla Muusa ndax cofeel gi ci nekk yënt yaay yënt yàlla Muusa itam yàlla defaat geneen xeetu cofeel koo xam ne dugalaat na ko ci boo xam ne romb na diggante yaay ak doom mm-hmm. léegi ba doom ji juddoo noonu mm-hmm. am na koo xam ne moo dem ca dëkk ba naa ne man daal sa faam daal gis naa ko muy dëgg dugg mm-hmm. kër yaay Moussa xam nga nag lu xet waaye moom ba ñëwee di contrôler ah mu jël ko sànni ko ci sawara wa ba mu ko sànnee ca fuur ba kooko ñëw di contrôler gisul dara nangam nangam ñu ne dañuy fi am lu ñu jaaxal gis nañ sage-femme bi mu ngi dugg la la daal léegi sage-femme bi moom mu ngi téye secret bi yaay mu ngi hmm. demee nag yàlla daal di xamal yaay yéen ci yàlla hmm. nekk demal ci ministre hmm. booba booba demee daan defal benn waxande waxande woowa kees googa hmm. ngay jël hmm. dugal ci yént yàlla Muusa hmm. ndaysaan bu ñëwee fekk ko ci suuf bi ñu ko sànni woon nag ndax mu ñëw fekk yént yàlla Muusa mi ngi sax baaraam bi moom mu jël ko nag dugal ko ci kees ga fekk nag ministre ba avant mu koy liggéeyal kees ga mu naan kaa loo koy doyeeg kees bu guddi ji nangam nangam di enquête di enquête di enquête ba ci biir enquête bi moom soo ma waxul loo koy doyeeg mu la ko defal mu ne damaa am doom nag te doom ji nekk góor te xam naa ne son excellence bu yëgee ne kii juddu na fi di góor dana ko moo tax ma bëgg ko jël ko dugal ko ci kees gi de waaw ministre ba ndeke moom kaa rek la bëgg yàkkamti na kaa lool groupe topp kaa la bokk dégg ci groupe topp kaa la bokk daal di ñëw ci gouvernement bi ne leen dinañ si renseignement généraux yi ne leen kër sàngam ci quartier sàngam de am na ko fa am doom te doom ji doom ji góor la mm. bëgg leen kaa wax mm. <laughs> balaa nañ naa seen yi àggale loolu firaaw na firaaw na ki wax loolu lu ñëw ci digg mm. mbooloo mi lu gis ko indi leen moo ko nañ ma ko mayal audience mu ñëw fekkee ba mu demee ba jëm firaaw na yàlla sëy laa mi munta wax waa ji liyaar liyaar firaw na kii daf ñuy fontoo ana saan dafay nataal gaa yi bàcc bàccal waa ba mu waajee mu génnaat foofu rek laal ñuy del siwaat mun di ay caaxaan mun rek ñëwaat na tey nettali am na ku fi am doom comme noonu ma la ko waxee waaye saa bu ñëwee du mun wax firaw na nataal ñu dóor dóor dóor ba muy bëgg a dee rek moom da xam naa xam na ciy dee moom mm. mooy mu'min aali Firawna bi ngay dégg mm. waa jii ne moom boobu la gëmoon yonent yàlla Moussa boobu dara xew mm. waaw léegi nag yaa yonent yàlla Moussa jël yonent yàlla Moussa dugal ci kees gi suñu borom naka nag sànni ko ci géej gi ba mu ko sànnee ne ko nag yabalal nit mu topp ba xam fu information bii mujj na Firawna itam dañu waxoon ne dafa am doom joo xam ne doom ji fa yoon benn xeetu feebar hmm. li génnee ci géej gi hmm. moo mën a faj doom jaar hmm. fañ toog noonu ci géej gi nag di seet dafay génn ak ñi ko war a faj ci noonu rek tabaarakallaahu la kees gi ñëw teer ci diggante garab yeeg yooyu ñëw gis ko xam nga mu saa ci seen mu ajama mooy ci seen làkk yi hmm. mooy garab ak ndox hmm. arab yi nag arabal ko rek dindi tomb yi hmm. wax Moussa noonu la mu ko woyof woyofal léegi ba ñu ko indee teg ko ci kanamu Firawna ñu ubbi kees bi aasiya moom daan leer ndax leer gi muy jëkkanti yàlla Moussa daal moom it mooy gis maîtriser boppam ngir sopp koo xam ne sopp na Firawna itam jaaxle ndax moom itam bëgg na aasiya fa suñu bëggin boo xam ne baasee jaarloo fa jaar hmm. ba mu ne kii daal li ma ko gisee ku jëm ji nanu ko rey hmm. mu ne ko mu kay tabax naka baax léegi nañ ko jël doomoo hmm. daal naa ah yow nga jël ko dowaaye kii ñëwuma ko de ñoom ñaar ñoom ñaar ko mu mbir ko jàngee woon ci ginnaaw loolee lay nekk daal fii loote waaw xëy ne waaw xëy wax yu nañu hmm. ilaa ummi muuse hmm. jëm ci yaay yent yàlla muuse hmm. nekaan héey ardiihi nampal ko daa idaa xifti ndegam tiit nga alayhi ci xale bi mooy information ragal nga ne daal dana àgg ci dëkk ba bu àggee ci dëkk ba bu niñ kaa indi ray ko booba naa la utul solution fa alqiihi sànnil xale ba mm. fil yammi ca géej gi mm. waaw mm. fil yammi ca géej gi mm-hmm. soo ko sànnee nag jarul tiit jarul xof jarul jaaxle wala takaa fii bul ragal ak labam wala tahzanii bul jaaxle itam di jàq ci teqalikoo gi nga teqalikoo moom fan yii nga ko gisul muñal innaa ñun yàlla mm. raadduuhu mm. way delloo lañu yent yàlla Moussa mm. ilayki ci yow yaay te nag non seulement wa jaayiluhu daañu ko def boole ko nome ko minal mursalina sànni nañ ko bañ ko sànnee wax naa li mbir mi demee bañ for faltaqatahu for na ko aalu firawna daa gi yénti ah, dëggi firawna ya hmm. ñoo ko for hmm. li yàkkuuna pour na ne lahum na mujj nekk lahum ñeel leen hmm. aduwa muy seen ak moom waaye ñoom nag bañ koy for xam nga ne moom lay doon waaye dana mujj nekk seen moom waxasanaa ak njàqare lay mujj nekk ci ñoom inna firawna naka firawna wa haamaan ak première jëwriñam jooju ñu wa wa junudahuma hmm. ak seeni soldat hmm. ñoom ñaar hmm. kaanu nekkoon nañu xaati iin di way juum mooy yàlla lañ nekkee woon ci réew ma waa bu leen neex tëral fa di doxal nam leen neexee yaakaar na ñoom duñu mës a folli wa wax na imraatu firawna soxna firawna sa mooy asi bint muzahib moo wax ne mm-hmm. nga xam ne tiir yi nañu ëllëg dafay bokk ci soxna yonent bi ci biir aljana mm-hmm. moo wax ne mm-hmm. ah qurratu ayni lii déy wala kii déy seral ak suñu xol la lii ñel wala ka lii daal nañ ko jël doomoo ko yi doon waaj pour nañ ko rey ndeeg cooli pour mu ne hey daa tax luubu bu leen ko rey comme yow son excellence maag yow hmm. yàgg nañu hmm. doom mel ni lu ñu tël hmm. lu ñu jafe nañu ko jël jëfandikoo ko mu nekk suñu doom laa taqtuluhu bu leen ko rey asa amaana an yanfaana mu jariñ ñu aw nattaxisahu wala ñu jàppe ko wala dan doom boo xam ne ëllëg bu ñu jógee ci pouvoir bi mu mën a continuer doxal pouvoir bi ñoom laa yasuruun yëguñu mbir na mm. muy mujjee mm. ak fa muy teere ji fekk yàlla moom toujours moom mm. tëral na scénario bu yàgg ñoom gis gisat ak la war a doxal ci mbir ma kooko yàlla dégg nga de wa asbaxa mujj na fu aadu ummi Muusa xolu yaay yént yàlla Muusa xëtër ba ci boppam faarigan daaji feex ci bépp njàqare boo xam ne amoon na ko bam mu des ñàkk gi ñàkk yént yàlla Muusa toujours mooy li wolof naa yow gar bu jóge ci yow janaaw mm-hmm. gar mooy gaynde mm-hmm. bu jógee ci yow muur parce que muur mën mm-hmm. am si réer problème yu bëree bëri benn problème ñëw rek fàttali la loolu rek la mooy amoon na ay problème waaye ñàkk gi ñàkk yénti yàlla mu ngaa feex fexe fexe na ba fàtte bépp problème bu mu bépp soxla rek ba mu des ñàkk gi ñàkk yénti yàlla Moussa faade faade soosu nag kaada xaw koon na sax de mm. ba coow li bëree mm. ñi naan xale bi foot nañ ko fële xale bi for nañ ko fële coow li na kur mm. tuuti kon rek la tudd mu feeñal bi ci xale bi na doomam la tuuti rek mu feeñal doomam law laa arrabat naa ay buñ téyiwutoon buñ dëgërlutoon muñ loo ala qalbiha ca xolam ba la takuna li takuna pour na nekk moom ndaw si minal mu'minin bokk ci way gëm ne yàlla am na lu mu ko waxoon na ko inna raaduhu ilay hmm. xam nga loolu la ko waxoon hmm. pour mu gëm loola hmm. mu gëm loola nangu ko waaw comme benn soxla dong la amoon tabaarakallaahu la dégg waa ji naan kaanat lil qalbi ahwaa'un mufarraqatun fastajmaat mundu raat kal aynu ahwaa'i nee na bëri naa yu ma soxla woon lool waaye yëpp dama ko mujj def daal mu nekk benn soxla rek di bi ma la gisee ba léegi tax na taraktu linaasi wa diinahum suxlan bi zikrika yaa diini wa dunyaayi wa mm-hmm. dunyaayi nee mm-hmm. <laughs> na bàyyi naa nit ñi seen adduna seen diine lépp ngir gis gi mën a gis rek mm-hmm. man daal amatu sama soxla ci dara yow képp dong waaw li te ko ñu mu'minin wa wax na li uxtihi ñeel sëru yent yàlla Muusa ba ne ko xusiihi dar ko nag topp ko xool ba xam fan la mbir fa basuraat hmm. gis na moom ndaw sax xale ba sër bu hmm. bi ci gént yàlla Moussa mi ngi koy xool hmm. an junubin ci côté xool ko xool ko léeg-léeg sàcc xool lay doon sàcc xool ndax bëggul mu fees ba ñëpp xam ne kii kii lay topp kees gi lay topp xoolu naa nit la koy topp comme gars yi bu ñu lay topp léeg-léeg mu topp ci sa kaw fekk mi ngi topp oto bi wala am koo xam ne mi ngi topp ci sa kaw bu dee ba bëgg a comprendre rek da nga gis mu jëlee jëlee wala mu woote woote du téléphone wala mu def nangam nangam comme ASC ni ñu koy defee rek noonu rek waxum laa yësoroon mm-hmm. te dëkk ba ci boppam xamuñ ne kii kii lay topp mm-hmm. dégg nga de mm-hmm. ne waxaat léegi nag ba xale bi feeñee ñu gis muy nàmp ci baaraamoo yi a ah, seene kii de xiif na wax dëgg yàlla nañ ko utal ko ko nàmpal fu ñu indi ci dëkk bi rek pour war ko nàmpal rek nàmpal gi xaw a jafe soo ñëwee gint yàlla Moussa day gànt ci ndigalal yàlla ba coow li bëree fu muy lekkee fu muy lekkee te xam naa ne xiif na Asiya na xaw ma euh, bi ci boppam boobu la naa ah man de xam naa seen ndaw su dëkk fële ci naa ko neex te rek na kooku de bëriwul ko su ngeen ko gis daal moom mun naa am daal bu ñëwee gis xale bi ah man su ko bañee ne dama jaaxal ma ñu woori mu dikk mm. jàmm sante xale bi lañ bëggoon ku ko nàmpul mm. mu ne ah waaw xanaa mi seer de mm-hmm. te xam ne ne moom xale na mm-hmm. waaye ñee xamuñu ko mm-hmm. mu jox yent yàlla Moussa ween yent yàlla Moussa si bi xool ko mu xool ko xamante nañ fii mu naam ah, mu ah, naa ne ko xale bëri wala ma bañ ndax sama sa yoxul naqari ma deret aha nag nag ànd ak may fay waaw da may fay kat weer jot yan daggal ma salaire nangam su daaw na loolu moom ceesu waaw hmm. loolu moom hmm. du cóor hmm. loolu leen wax daa daggal ko salaire nag leen foog mu yóbbu ko sama kër nag dëkk yar waaye ñu ne ko léeg-léeg jaar nag di ko indi nuyu xool ba xam <laughs> moo tax yàlla bindaa yàlla du naa tere nañu alayhi ci yénti yàlla Moussa almaradi away nàmpal yi min qablu ko jiitu ñu koy joxaat yaayam pour mu di ko nàmpal koo fi indi mu gànt boo fi indi mu gànt mm. dégg nga bu baax a baax mm. dégg nga mm. fa qaalat wax na moom sër ba ne hal adullukum ndax duma leen tegtal ala ahli baytin ci ngeen kër goo xam ne mm. yakfuluunahu daañu leen ko yaral lakum ñeel leen mm. mën leen kaa nampal mm. téye ko ci condition yu baax boogum ñoom kër googu naa si xon way laaye biir lañu lagu ñeel xale bi ñu ko mën a laaye biir lañu dégg nga radat naahu delloowaat nañu yent yàlla Moussa ilaa ummihi jëme ko ci yaayam kay taqarra ngir na sedd aynuhaa xolam ci dajegaat gi ñu dajewaat yoonu ñaareel mm-hmm. wala tahzan hmm. te bu mu jàq hmm. ci jooju la jamono hmm. wali taalam ak pour na xam itam moom yaayintu yàlla Moussa ne an na waadallahi naka rendiw yàlla te mooy wax ga waxoon naa la ko delloo si waat xaqul dëgg la bu sax walakin waaye aksarahum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuun xamuñu dara mais laa yaalamuun wala ay laa yaalamuun xamuñu mi la muy léegi nag ma ko wala maa bala wala wala maa balaaxa ba demee ba joti moom yim ci yàlla Muusa asuddahu kattanam am fanweeri at jëm kaw fanweeri at jëm kaw kon mi ngi bëgg nekk kilifa nag wasawa hmm. yemoo toll ci ati quarante ans hmm. xel mi dikk hmm. lépp mat léegi aatay naahu jox nañu ko foofa xukman atte mooy nubuwa wa ilman ak xam-xam diine boo xam ne da jëfandikoo tabarakallahu ñun ñoo ko ko jox dégg nga wa kadalika naka nii ñu faye yent yàlla Moussa najis yi daañu ko fayee almuxsiniin way rafetal yi képp kuy rafetal daal te yàlla tax noonu rek lay mooy a demee ndax aljala moom gin am dañ ciy nettali jigéen boo xam dafa dem ba taaji day ram benn ndaw si ci guddi jox yelwaankat ba ci li jaar ca ginnaaw këf doom loo si jaaxle lool hmm. mu ne ko yow sama borom de hmm. sa yalwaankat bii de hmm. laa doon sarax rek te yàlla tax ci li nag jàpp na sama doo yàlla ne ko ci li am na ku ko dogale ba génne nangu xale bi ci moom indi daal la ko te amul benn lor waaye nag lool ñu ngi la ko defalee ngir saraxe ga nga doon saraxe leenu baax te yàlla rek tax loolu la man dama am lu ma ci mos a dund. Hmm. xëy na duñ ko sarax sax nag. Hmm. dama yéeg ci oto. Hmm. doon dem boori mboor xaw ma teewal daal waaye du jumane boobu maa ko. waa delloo mu lu ëpp mu ne kaa ah, li ma delloo dafa ëpp. jox ko la mu ëpp. téye sama weccet. ba ma wàccee man tamit. ñëw ci benn jaaykat. am lu may jënd. bàyyi mas naa weccel ma ne mënuma kaay jël wecceli mhm. te ci même bis bi mhm. lii ñu ngi ma dalee ci yoon wi i i waaye naa oto lépp daal jéeg naa fi ñaari oto waaye ci benn bis bi la mhm. ma xam ne lee mënoon def na yàlla fayaatee bii waaye bu rek <laughs> kon ko daal di gën a gisuñ wax si léegi nag day dugg tuuti ci yéen yàlla Moussa ba mu duggee ca dëkk ba am mbir yu fa xew mm. di doxante ci àll ba mm. la fa xew la bëgg a mos tuuti mm. wa dugg na moom yënt yàlla Moussa almadina te réew ma mooy dëkk ba ala xiini xaflan ci jamono càggante mooy waxtu ges diggi njollool min ahliha bàyyi koo ci njabootam bàyyi koo ci këram di doxante noonu ci àll fa wajada fekk na fiihaa ca àll ba mm. rajulaani ñaari waxambaane ñaari gaay mm. yaqtatilaani ña ngay jàppantee ko xuloo mm. kenn ki ñu ngi bokk ci pouvoir bi kenn ki ñu ngi bokk ci opposition bi di waa kër yonent yàlla Moussa ki bokk ci opposition bi di waa kër yonent yàlla Moussa jooru yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa ñëw pour xettali ko mu àtte leen ndax ki bokk ci pouvoir bi def ne ko matt mii ma taxan fii yaakaar yenn yóbbuwaat ko par force kër ga mm-hmm. ndax yéen moom lii rek moo fi seen liggéey amul beneen liggéey bu dul moom mm-hmm. kii nag xam moo ko yan na mm-hmm. ba yént yàlla Moussa dikkee nag di mbir mi bàyyil du ma bàyyi yam leen bi ku kële rek ci kur rek mbokk yént yàlla Moussa bi tabaarakallaahu ah moom it day ñëw euh, euh, euh, pour nag jiibaale affaire bi ndax affaire moom affaire daf ko dépassé ndax ñëpp xam nañ am na ko am nañ ko waaye xamuñ kan moom daal moo wax ne yént yàlla Muusaa la waaye avant mu koy wax nag avant mu koy wax ci waxi nit ñi la demee ñu demaat ay fan yént yàlla Muusaa génnaat di doxantuwaat ah ci àll bi ba dajewaat ak waaja mm-hmm. mu dajewaat ak ku bokk ci pouvoir bi dajewaat ak ku bokk ci opposition ba ko woon mm-hmm. dajewaat ak moom mm-hmm. da nga yenn say du ma ko yenn da ko yenn du ko yenn da nga def du ma ko def ba mu ëyuwaat yënti yàlla Moussa pour yënti yàlla Moussa dox ci diggante bi ba yënti yàlla Moussa ñëw di arrangé nag yem leen fa muy waree loxo mbubb ba pour defaru pour dugal gën a ci ku bokk ci pouvoir bi mbokkam mi ragal nag ah mbaa dooma ray ni nga rayoon waa ji démb ki bokk ci poir moom booba ndara ñëw yoole affaire bi ñu teg mandat dama nekk mandat dare gis Moussa la génn ci yàlla Moussa dégg nga loolu nag lay jàngal loolu ñuy def waaye foofu bu fekkee alul ishaaraat dañuy wax ne yéen yàlla Moussa dafa nekk ci kër Firawna di dund ci état te état li ñuy dundee lu ci rax loo xam ne ak nit ñi la comme yàlla nag bëgg na ko nomee mu nekk yonent mooy sababu mu ne ko génnal fukki at yii nga def doom fële pour mu nekk sa tarbiya ngir lépp loo xam ne lekkoon nga ko fii te mbir mi jaarul yoon mu mën a génn dox ba mu doon dem pour dem suwaay bi loolee la loolu la ci yàlla bëggoon a jaarale pour lan lii gerees gii nekk ci moom te nekkul gerees gi jaadu mu génne ko ci moom àggale ko bépp takk-takk bu nekkoon ci moom mu génne ko ci ba mën di dékku yamale ku ko tagg ak ku ko ŋàññ ku koy jox ak ku koy xañ ku koy lor ak ku koy jariñ ko yaatal ak ku ko xatal nit yàlla yag fi yeg àggugoo foofa demagoo fenn mu tëlee bu kenn fi yeg àggugoo ci mustawaa boobu demagoo fenn fenn nga demagoo ñaar yi daal fi yeg moo réwé ku lay tagg ku lay xas ku lay jox ak ku lay ati ñàkk mm. ku lay lor ku lay jëriñ mm. nga xam ne mm. na ngay jëriñee ka lay jëriñ noonu ngay jëriñee ki lay lor mm-hmm. yombul nag mm-hmm. ma ngoog foofu la yent yàlla Moussa ak góor aywa fekk na fii ca dëkk ba ci àll ba rajulaani ñaari gaay ci ñi ngay jàppante aka coowoo haada hmm. kii hmm. min siyaatihi mi ngi bokk ci kuréelu yënt yàlla Moussa bi hmm. mooy mi ngi bokk ci opposition bi wa haada keneen kii min aduwihi mi ngi bokk ci ay noonam di waa kër Firawna fa staxaasahu ci yënt yàlla Moussa sàkku na wallu ci moom ci yënt yàlla Moussa alladi ka nga xam ne min siyaatihi mi ngi bokk ci opposition bi mu sàkku ndimbal la desi ci kaw ka nga xam ne hmm. minaadu yi mi ngi bokk ci pouvoir bi di ay noonam hmm. bu yënt yàlla Moussa yemale yemale ñu tëy hmm. dagg are dagg na ko yàlla atti ci moom mu dee xoola foofu yënt yàlla Moussa moom boobu gaa waxante yàlla <laughs> ay jazakallah jërëjëf mm. jazakallahu xayr dégg ngeen mm. boobu la yénti yàlla Moussa mm. daa waxanteeg suñu borom nekk njuumte am na de bëggeewu ma ko nii man daal dama ci jublu woon rek pour xett li xaala mu yàlla Moussa ne haada lii de dugal gii ma dugal waa ji mu wàcc min amali seytaan mooy seytaan yi moo ma def nii ma def merloo ba ma def lii ma def innahu naka moom iblis mm. aduwun noonu la ci doomu aadama mm. mu dillun bay aji sànke mm. mu biinun bay aji bir ni muy sànkaatee mu jàkkaarloo yàlla nag ah yàlla de njuumte am na de waaye nag maa ngi defan jort damaa juum rek tayex de qaala mu wax di aji rëcc moom yénti yàlla Muusa na rabbi yow saa boroom indi man mii tu tooñ naa dégg nga ko nafsi ci saabu gii ma waay faxafir lii yàlla nag mu suturaal jéggal ma mm. ba mu waxee nii rek faxafar la mm-hmm. yàlla jéggal ko mm-hmm. innahu nag moom yàlla mm-hmm. huwa alxafuru rahim xaala mu ne mm. rabbi yow sama borom mm. bi ma anamta ci hmm. saabu la nga xam ne xéewale nga ma ko hmm. alay ci man mooy njéggal gii hmm. maa ngi ñaanit nga musal ma bis ni ki tay fala naa koon dootuma bokkati dootuma nekk ci mukk zahiran di aji jàppare jàppale lil mujrimiin ñeel ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi kon tooñkat moom ko koy jàppale xamuloo ku ngay jàppale mooy kan gaa yi nag da gis suñu gouvernement yi fekkom tooñkat mi jàppale ko waaw di jàppale ba mu métti lool loolu baaxul gàcc rek dégg nga bu baax mm-hmm. ay ca beneen yoon mm-hmm. fa asbaxa mujj na mm-hmm. fil madina ci dëkk bi xaayifan muy aji tiit nag yàlla Moussa ragal na ci ay boppam ndax wóoru ne gaa ngay sirwaye di xaarandiku di déglu lan mooy bàyyikoo ci résultat rey gi ndax rey am na ñu yëg nañu rey am na waaye xamaguñ ki rey kan la ak li tax mu rey ko lan la bi dépend faydaa ci noonu allazi ka nga xam ne istansarahu sàkkoon na wallu ci am si ca fan yële ci ah, ah, fa asbaha mujj moom yonentu yàlla Moussa fil madina ci dëkk ba yataraq xaayifan di aji tiit di aji jaaxle lool yataraqabu di surveiller di xaarandiku ban résultat mooy jub ci ray bi Mm. waaw mu bàyyi àttee daal mm. loolu nekk na problème am mm. aywa fa ida ci noonu alladi ka nga xam ne istan istansarahu sàkku woon na wàllu ci yënt yàlla Muusa bil am ci démb mooy ka ko woon dafa kaay jubale ci kii yastasriquhu ma ngay sàkku wàllu lu waa yënt Muusa ci keneen mm-hmm. ah yéen yàlla mu ba mu dee ba ñëw hmm. xaala wax na lu ñeel ko innaka naka yow hmm. saa waay hmm. ñoo bokk fu ñu far nag maa ngi yow yëpp ay patriote dañu ci misaal waaye nii nga bëgg a nii xam nga kon jàngale la yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu jàngale undur akaaka zaliman de ndax yow mën nga def du set yaay génn ci àll bi la gaa yi di jublante ah lii mënul ne lii la mënul dëkk moom mu wéy kat innaka naka yow mm. la xaw yin ku beew nga mm. mu biinun mm. ku ni ngay béwe fala maa yuntu yàlla Moussa naan toog leen rek di arrangé <laughs> wam loxo mburu bi dugal kurfañ bi rek bu la dajale kurfañ bi rek ah waa ji ci yuuku na fala maa an araada ba bëggee moom yuntu yàlla Moussa an yàpp sa te bu song billadi te nga xam ne woo moom kooka mm. aduwul noonu la laxumaa ñeel ñoom ñaar diint yàlla Moussa mm. ak mbokkam yi mm-hmm. xaala wax mm. ka doon sàkkoo xettaliku di mbokk yint yàlla Moussa bi moo ne yaa Moussa ah yow Moussa aturi yi ndax da ngaa bëgg am tax ne nga faat ma nga bóom ma kamaa xatal te comme naka nga bóome wala am si ci fan yi <laughs> am fi gi ne boo dégg maanaam fan yii passé lii bëgg laa bëgg boo ko hmm. su ko amul hmm. mooy démb ci sas ki tey hmm. boo dégg maanaam fan yee passé rek te taw fuñ ko nekkul démb démb bi euh, samedi ji wala démb démb bi ak juma ji démb démb bi fan yee ci ginnaaw léegi loolu lañ ci jublu woon nag bi am ci démb rek xamoo fan yee passé in bëgguloo yow yent yàlla Moussa illa am takuna lu nga nekk fii jabbaaran di ab agresseur di bandi ah yow daal léegi agresseur bi wama turidu bëgguloo yow yent yàlla Moussa moom xanaa la ko góor gi Moussa bëgg a pare bëgg a jooraale xeer yent yàlla Moussa moom tamit dégg ko baax baax day fay ndax la ko gi wax Euh, an takkoon nga bokk minal muslihiin mm-hmm. ci ñi nga xam ne dañuy yéwénal mm-hmm. di defar lu baax mm-hmm. wax naa la waaja daal di rëccee foofa daw ñoo tas information bi partagé ko gars yi ne hee dëgg kii deewoon fan yi te xen xamul ko rey yàlla Moussa moo ko góob ne nga ngeen waja léegi nag kooka ba waxee xibaar bi muuminu ali firaama mooy ka nga xam ne moo doon jéebaani yént yàlla Moussa bañ koy defar ko kees ba mu nekkee liir mm. nga xam ne moom am na lu mu ci dajoo mm. kooku moo ñëw gisante yént yàlla Moussa ne ah faire attention mm. gars yi nag am na lu waa buñ tëral procureur signé na benn décret boo xam ne fu ñu la fekk nañ la indi te nañ la rey léegi nag daw ca ba nga yami tànk damaa ñëw nag déy la ko pour nga mën a génn dëkk dégg nga bu baax loolu lay junj ba jaa ñëw na rajulun benn waay min axsal madina mm-hmm. bàyyi koo fa gën ci dëkk ba mm-hmm. dégg mm-hmm. dox dox bu gaaw xaala mu naan yaa Moussa innal mala naka gouvernement bi yatamiruuna ñi ngi réunion ak a diisoo bi ko ci say mbir de diisoo pour lan li yaqtulu ko pour la boom ray la yëf yi jeex lii rek la amul leneen dégg nga léegi nag faxruj Hmm. génnal dëkk bi hmm. seet foo dem hmm. inni man mii am na fu ma jaar ak xam naa ne am na lu nekk ci man moo tax ma teel a nangu doyi bu ma yónnee la mina naasihin bokkaa ji nga xam nañ lay dëkk bi fa xaraji génn na moom yënt yàlla Musaa minha ca dëkk ba xaayifan di aji ragal yetaraqab di funglu di bàyyi xel balaa ñu koy indilaat beneen jafe-jafe mm. dégg de uh. léegi nag ma naan rab yow sama borom uh. nag jinii uh. yàlla nanga musal minal xaw mi ci gaa yi nga xam ne mm. avalimin mm. ñooy way tooñ mm-hmm. Mm-hmm. tooñkat yi daal yàlla nanga ma musal ci ñoom tabaarakallaahu ba li ma bëgg mu amee na ma ko bëggee mm-hmm. ndax ñoom mën nañu tooñ mën nañu yàq lool nag yàlla la yeneen di wax nag bu bëggee ab jaar bàkkaar yi du wàññi dara digganteem ak jàmm mm-hmm. waaw mm-hmm. la nga déggoon mm-hmm. nit yàlla ba doon ñaan allahuma yàlla si sayyiaati man ahbabta wala tajal xasanaatina xasanaati man abgadta loolu day indi jafe-jafe ey ndax léeg-léeg bu fekkee da ngaa sopp kenn luñ la wax ci ay ayibam ak i loolu yàllaay def loolu Mm. kon yàlla nag mm. yàlla nga jël jël ay ñaaw kéef mm. def ko comme ñaaw kéef yi ñi nga sopp mm-hmm. du mujj luñ soppi ko yëpp waaye yàlla bu jël suñu ay rafet rafet def ko comme rafet rafet yi ñi nga bañ ah du la ci baal dara mm-hmm. du mën a tolloole dara du mën a jéggale la rek mm-hmm. léegi nag bu dem ci yontu yàlla sax wax naa la ko fa yóbbuwoon ak li tax bu dem fa pour loola dañ pour loola dal di dañ ay ca wala matawajja ba nga xamee ne jublu na moom yent yàlla Muusa tilqaa Madyan ci côté Madyan jëm boori Madyan ngir yent yàlla Suayb fa la ne te diggante Misra ak Madyan doxub juróom-ñetti fan la kon àll bu dagg la xaala ba mu tegee ci yoon yi mu ne asa rabbi amaana sama borom dey an yahdiya di mu orienté ma gindi ma sawa asabil ci digg yoon ndax dafa ñëw ba ci yoon wi gis ñetti cër maanaam yoon wu def nii ak wu def nii ak wu def nii xamul ban nag moo ci jëm mat yàlla fa mu taxawee ñaan la mu ne yow yàlla daal maa lay ñaan bu fekkee yoon wii la nag ma teg ba ca coow ba ci dëkk ba bu fekkee wii la ba ci dëkk ba bu fekkee wii la ba ci dëkk mu existe rek dugg benn ndekk boobu jëm ci dëkk dégg nga baax léegi nag ba mu nee ba dëkk ba ca ba ndax sàmm si fa lañ daan wëggee seen jur te yént yàlla su ay bu amutoon doom ju ay doom yu jigéen la amoon te doom yu jigéen yooyu nag ñoo ko daan liggéeyal lépp loo xam ne doom ju góor moo ko war a liggéeyal ñu daan sàmmi daan wëgg daan def yëpp daan rafet daan def yëpp te ñoom xale yu jigéen yi bu ñu ñëwee sàmm su su ñuy wëgg seen jur yi ñoom dañuy taxawee nee ba góor ñu wëgg ba dem ndox ma fay des ñoom ci la ñuy wëgg seen jur ba yént yàlla Moussa dikkee nag gis leen lu laaj leen lan moo tax ngeen taxaw fii ñu ne ko ñun de wax dëgg yàlla sàmm su ñoo daan wëgg wëgg mbalka mi su desee ci la ñuy wëgg ndax ñun amuñu doole mën a tijji teen ndax ku biir gi ñu koy tëjee diis na gisanu diis goo xam ne ubbi ko danañu tëj ticc ticc ticc ticc ticc yéen yàlla Moussa ne waa dem leen toog fee ma xool dem na sàcc kubéer ga teg nee te ko yu bëree bëri gën a sax waaw ponkal yu bëree bëri mu wëggal leen ba mu leen wëggalee ba pare nag ñoom it ñu teel a àgg seen papa ba ñu àggee ca seen papa nag ne gaa ah, papa de tey dal nañ ci. ñun daal benn waay bu baax a baax bëri doole bëri kattan lool moo dikk tey jàppale ñu xam naa daal comme papa yow amuloo doom bu góor xam naa boo ko jëloon def ko sa surga muy sàmmaka yooyu su ko defee ñun ñu xaw ma noppale ci côté féetewul liggéey kër gi dana baax trop ñu demaale ci loolu fu ñuy mujj góor gi aywa wala maa war a def mu demee barot maa Madiane ndoxam Madiane mooy ba ba àgg fa. wajara fekk na fa alayhi ci teen fa ummatan mbooloo mais naa si ci nit ñi nga xam ne yas ko daañu wëdd seen ay baahima wa wajara fekk na min duunihim ci ñu dul mbooloo min duunihim ci ñu dul mbooloo ma fekk na fa imraatay ni ñaari jigéen te su daal ña ngay tere seen gàtt yi di leen dàq pour lan buñ naan ndox ma xaala muy leen maa xat bu kumaa leen mooy seen problème yéen ñaari jigéen ba muy leen wëgg xaala taa jigéen ñi ne ko laa nasti yi mënuñoo wëgg suñu gàtt yi xattaa yus lu dafa dem ba bàyyi koo fi riaawu sàmm si sàmm yi daal bu ñu wëggee ba pare la fiy des ñun loolu ci la mën a barkeel waaye su loolu rek du yomb ci lu tax loolu nag waa bu naa suñu papa cheikhun mag la kabir mu mag a mag mënutu sa ñëw di wëgg moo tax parce que wëggal la moom góor gi Moussa lahuma ñeel ñoom ñaar mooy mu yëkkati teen ba te wax naa yëkkati kubéeru teen ba te fukki ponkal ñoo ko yëkkati kon gis nga it yàlla Moussa bëri na doole moo tax ba mu dugalee ku waaji waaji wàcc loolu doole yi nu mu war dëgg dëgg dëgg la su ma topp wàññi ko moom góor gi ila zilli jëm ca kër ga di dal ànd ak xiif lool nag xiif lool fa xaalam ne rabbi sama borom inni man mii li ma anzalta lépp loo xam ne wàcce nga ko ilay ci ba min kaarin ci aw ñam de faqiirun ku soxla laa ñam de xiif naa lool ndax ma xiif naa lool ndax booba da doon wax naa la ci xew xiif naa lool fa mu dalloo garab ga di dallu kenn ci xale yu jigéen yi ñëw na ko wuyul sama papa ne ko wuyul góor gi mu ne ko góor gi de mu ne ah góor gi de nee na xanaa boo ñëwee li ñu wëggal tey liggéey bi la ko tey mu fay la mën a am loo barkeeloo lii loolu daal la góor gi wax ba mu ñëwee nag mu ànd ak yéen ci yàlla Moussa xale bu jigéen bi jiitu di dox. yént yàlla Moussa féete ginnaaw xale bi dem ba mu yàgg léeg-léeg naaw siro xale bu jigéen mu ne ko kaay kaay xam nga nooy defaa kaay féete ma ginnaaw moo féete la kanam nga ne maa toppal sa ndeyjoor toppal sa càmmoñ continuer gauche droite avancer arrière ba kër ñu yàgg ci biir góor man daal loolu laa xam waaye daal jigéen jiitu ma ni ma topp ci ginnaam daal ñemewu ma fa jaadu ñëwal na góor gi Moussa ihdaahuma kenn ca njaboot ga kenn ca xale yu jigéen ya tam si ma ngay dox ala stixyaa in ci kersa ànd ak kersa gu mat sëkk hmm? kon jigéen ju bëri kersa la waaye nag la Seexul Haaji Maalik Si radiyallaahu anhu waxoon ne yëfi jibril di mujjee jële ci kaw suuf yem fi wàcc ci gannaaw yeneen ni fukki mbir yi bokk na ci xayaa fexe ba jële ci jigéen ñi kersa waaw léegi moom dañu wow bët moom waaw wow nañu bët ala stixyaa te kersa nag mooy nit yénent bi ne nit ku ne boo amatul kersa lu la neex def te mooy dëgg kersa mooy baaraas bi nga xam ne moo ne ah nangam kat bu ko def ndax boo ko defee nangam nangam kon moyewul lool de jom moyewul lool de xanaa yoo xamuloo fi nga bopp xanaa yëguleen bu ko seen jiw déggee bu ko kilifa sàngam déggee man de xamuloo noo koy waxee gàcce boobu ci penc bi xam nga kersa moo lay def yooyu nga moytu ma doo def yooyu waaye bu fekkee ne loolu dañ rek doo faale ci dara ala sihiya inna na naka sama baax yi yaduuka mi ngi lay woo li yajziika pour na la fay ajra maa fay la nga xam ne sa kayta la naa wëggalal nga ñu li ñu wëggalal xar yi góor gi nga ñëw mu fay la ko ay ca dem nañ baax mu berndeel ko defal ko lépp Moussa jëfandiku ndax nee na woon lima anzalta ilay min xayrin faqir aji wanaa ko fala maa jaahu ba góor gi yent yàlla Moussa ñëwalee góor gi Suayb wa qassa nettali na alayhi ci góor gi al alqasasa njàngal mi mooy xisama la ka tax a jugee misra ak li ko indi madian lépp kaa bi yëpp mu tëral ko ba mu góor gi li ko góor gi wax laa taqa bul xof jarul tiit fii sama territoire fii dictature amu fi dara amu fi moom lépp yoon rek na jawta mm. mu nga bis ni ki tey mm. minal qawmi ca gaa yi nga xam ne mm. azalimin way tooñ lañu ba mel ni firawna ak pouvoiram lu neex def wax na idaahuma kenn ci doom ya ñii na ku makkal ñii na ku ndaw ka ñoo ne papa papa ne la bayka ñu ne ko bàyyi daal kii dañoo bëggoon nga jël ko def ko surga boo xam ne day tàmmee xar yi su ko defee liggéeyu kër gi nu mën ko féete woo yaa bat yow baay istajirhu yoole ko mooy jàpp ko mu nekk suudu ndax na xayra man istajarta ku gën ci koo xam ne da nga koy jàpp mu nekk surga di la xëyal di gontal bokk na ca surga ba ngay jàpp daal alqawi mooy day nekk surga bu am doole ndax su demee tool mën laa liggéey liggéey bu baax al amin itam nekk ku wóor waaw nga xam ne lépp da koy def bokkut ak surga yi nga xam ne dañuy dem tool yàq sa machine wala ñu yàq say raafal wala gàncax gi bëri ñax nga wóolu leen si nga yëg leen tool nga dem fekk tool bi yëpp booy al amin ndax lu tax mu nekk xaw yi teen ba moo ñu ko wax al amin lu mu nekk al amin nekk ku wóor ba ma koy indi sama sër ginnaaw sama ca tànk di feeñ daf ne ma kat kaay féete ma ginnaaw mu féete la kaw ndax kat bu fekkoon ne mel na neneen ah daf may bàyyi ci noonu wala mu dugg noonu kenn xamul kon al amin xaala góor gi ne ko waa comme d'accord nga hmm. léegi nag loo bëgguma ma fay rek bu fekkee ñaari jant yi laa fi yor hmm. léegi nag soo bëggee hmm. mën naa laa jox kenn ci ñoom ñaar mu nekk sa ndax man nga am soxna su ko defee mu nekk yow fii ma fat la sama kër ngay dem ak dikk di ma liggéeyal ba mag tabaarakallaahu juróom-ñetti at soo ko mënee def fukki at sax na ndax tarbiya bi gën a baax gën a mat gën a jekk gën a rafet mu ne ko nag ñaari date yooyu ma la jox boo ci matale rek baax na ñii ku makk la takk ñii ne ku ndaw ko la takk waaye daal takk na ci kenn moom dégg euh, euh, euh, léegi ñu dem ci xaala góor gi Suayb bu ne ko inni man góor gi Suayb uriidu bëgg naa an unki xaka ba ma may la mm. ihdat na tayya mm. kenn ci sama ñaari doom yu jigéen yi haatay ni ñaari ñii laa wax mm. bëgg naa daal jël kenn ci ñoom ñaar jox la ko rek may la ko mu nekk soxna ndax man nga am soxna ala an taajurani ci nga liggéeyal ma samaani yaxiyat juróom-ñetti at bëgg naa daal nga liggéeyal ma huit yoo xam ne tabaarakallahu mooy can ga sax ne waa baax na yéen yàlla Suwayb bu ne ko hmm. fa in at mam ta ndegam mottali nga asanan fukki at hmm. soo ko defoon fukki at mottali ñaari itam hmm. ah fa muy andi ko kooku ci sa coobare rek la bàyyi ko te day tax mbir mi gën ma gën rafet gën jekka rek loolu rek laa ci jublu jubluwuma ci leneen bu fekkee loolu mën ay jëf bismillah nga taxaw wa maa uridu bëgguma rek man googi a bi an asuqa ma teengal taral alayka ci sa kaw teg la loo xam ni doo sa taju yi dama fekk incha allah ndegem neex na yàlla daal mina mm. saalix ma bokk ñi nga xam ne mm. dañuy yiw di matal kóllëre mm. xaala Moussa ko zaalika wax googu nga wax ci juróom-ñetti at yi ah bay nii nekk na sama digganteeg yow xaj na ci ndax teraanga ji nga ma defal ak dalal ñaari dat yooyu ñaari dele yooyu moo xam dele fukki at bi wala juróom xadaytu tabaarakallaahu jël naa décision ah, ah, ah jeexal ko tàkk ba mu jeex. bu hmm. mu ci doon rek fa laa wax waala hmm. deetub nooneel hmm. ala yéen nag war ci sama kaw su ma defee leen ba loolu bu pare nag bul wallahu yàlla sunu borom wakiilul aji fekke la ala ci li nga xam ne maa ngi yow yëpp ñi ngi koy wax nii kon ndeke can mën na tëddee nag mu liggéeyal waaj mm-hmm. mën na tëddee itam mm. ci sunna oh. nga jàngal ko aaya alquran mm. wala aw saa mm. wala bari ba fer iji ah wala nga jox ko tool wala nga jox ko oto wala nga jox ko wala nga jox ko sans départ yooyu yëpp am na da nga bu baax a baax yooyu yëpp da nga xool xadis yi da nga gis nit naka can gi mooy fexeel mokkal saa sànga rek laa sax bu mm-hmm. ko mokkalee mooy taxaw taxawaay can bi mm-hmm. ndaw sa mokkal loolu mu nekk mu nekk ak can mm-hmm. waaye léegi jamono ji jigéen boobu ngoro naan kaa ñu mokkal la lixlaas wala ñu mokkal la amaayat ak ayatul kursi la ilaha illallah dama xam dama bëgg sama moo dem moo tàndaat ma samay noonu reetaan ma ñoom koy léegi li ñuy wax lu may rendeen noon yi waaw na bongo maan yi ñëw kalaw kalaw yi ñëw ñu ne ana aawa yi ñooy ñu <laughs> dañ dem bala may foofu nga ne gën aawa bandi la nangam nangam lu lañ ci yàq aawa de ooy kenn mësul dégg loolu kon liggéeyal ba mu ko liggéeyal moom la jël def ko ak can noonu de mu jëbal ko soxla ca tàng-tàng aha léegi nag hmm. ba yent yàlla Moussa nekk fa hmm. fukki at yi ba fukki at jeex hmm. mu yewwi ku nag hmm. Suhaybu joxaale ko ak jur hmm. ne ko jur ji kat hmm. maa la ko jox nga jël ko pour nga mën cee déparé utee ci looy jëfandikoo yaag sa njaboot yént yàlla Moussa ba mu jëlee loola wala daf ne ko sax ren daal lu xari jur la ko lu xari jur rek yaa ko moom rek fekk avant loolu def ne ko demal nga demal nga indi yat wa nekk ci néeg bële dama nga ñu xaaw yat saa bu demee yettu yént yàlla bi aadama yoroon yenent yu yoroon ko ñu koy donnante ba ci moom moom yént yàlla soaay saa bu waxee daal demal doom jigéen dama nga indi ma yat yat woowu lay indi ba mu delloo ko mi juróom-ñaari yoon nag ci la xam ne yet bii kat mooy mbiru yéen ci yàlla Moussa mooy yet mooy yetam yi mu doon defee jëndal ci mm-hmm. ci la ko ko yàlla xamal ko ne ko nag comme yebi mm-hmm. te jox nañ la ay jur yat bi ko ci ndox mi ci teen bi ngay bëgg mm-hmm. soo ko ci dóoree xar mu ci naan dina seex yëpp jur mu nekk jur bu baree bari noonu la fa déparé am lu mu déparé ci mbirum àdduna léegi nag bu mu ñib siwaat comme tarbiya bi mat na te yàlla jox na ko ndigal léegi mu dem lépp loo xam ne moo duggoon ci moom ci xaalis boo xam ne xaalisi état la nekkoon ci jëmmam yàlla bëgg mu dañ yoon wa mu jaar pour mu dañ gis nga ko pour mu dañ ko pour jërët gi dañ ci moom tabaarakallaahu ah ba mu dañee ba muy wàññi ko si nag ñëw ba ci yoon soxna si am doom la ja jàngoon nañu ko moom lay laalaat wasaara dox na bi ahli ànd ak njabootam mm. anasa séen na moom yent yàlla Moussa mm. min jaani bi tuur mm. bàyyi koo ca côté xeer wa séen na fa naaran ak leer mooy sawara xaala wax na moom Moussa li ahlihi ñeel njabootu boppam gi ne umkusu sax leen fii xaar leen ma fii patiente bu leen fii tuuti ma ñëw inni man mi kat anastu séen naa naaraan sawara fëre mm. ndeka la mu séen mm. leeru yàlla la yàllaa ko soxla foofa convoqué ko foofa mm. te noonu la mën a waxanteeg moom laa lii amaana man aatikum ma indil leen minahaa ca foofa ma jëm bi xabarin ci information bi wane ne ndax fii ma jaar yoon wi la wala du yoon aw jazwatin wala am ngànj bina naar bu mm. bàyyi koo ca sawara mm. laal la ko ndax li mm. tasaluuna ngeen mën a jaaru ngeen mën a jaaru bu baax a baax ngeen mën a nugg nugg daal solamaata ba mu ñëwee ne sawara sa na ko foofa da nga de ne ko ah, ca côté xuruwa al aymani ba nekkee nday jooru yim ci yàlla Muusa foofu lañ ko woo hmm. yàlla woo ko foofu hmm. fil bukaati ca place hmm. al mubarak bari bañ barkeel ndax place booy taxaw di dégg kàddu yàlla place buñu kaa barke dégg nga def ñoo sojëri ci gaaw ñu yàlla Moussa yow laay wax inni man mii anallah maa yàlla garab ko wax ne ko man mii maa yàlla mm. mu ne ko yàlla mm. mu ne ko rabbul alamin non seulement mooy borom bindee fi mm. lu fi ne fii may borom kon ñëw na ay yoon yoon comme niñ ko jàngi woon mu nekk anuwaale mm. alqi sànnil mm. asaaka sa bi mm. mu sànni yat bi fa lamma ba mu gisee yat bi mu yàlla Moussa ba mu ko sànnee tahtazu ma nga yëngatu di battar nit ka annaha mu mel ni yat bi jaanun jaan la joo xam ne day yëngatu di battar nit noonu wala du mooyu na mu biran di joxe ginnaaw wala mu yàqis te hmm. arrière hmm. ba mu ko sànnee rek hmm. mu nekk jaan rek moom dafa continuer arrière ndax musul gis loolu musul xam loolu ci ñu nekk yaa Moussa yow yénti yàlla laay wax ak bil jublul ci jaan te jàpp ko naka yow daal yénti yàlla Moussa yi nga xam ne dañu wóor ñu am kóolute mm. seen diggante ak seen borom ndax ab yenant mm. mm-hmm. du ragal mm-hmm. dégg nga quoi minal amini dégg de mm-hmm. Mm. jëlal sa loxo bi nga dugal ko ci sa poos bi soo ko defee dana génn weex taar te du am benn sikk uslub dugalal yadaka sa loxo bii mm. dugal ko mm. fii jaybika mm. ci sa poos bi boobaa gën a génn moom loxo ba bay daa nekk lu weex far min xayri suu ci lu muy am benn sikk buy nekk ci loxo bi ay ca mu ne loolu mu nekk war nu tafal idée ka jëmee ka ci yow janaaka sa mbagg mii ne raxa bi ngir tiitaange boo xam ne yaa ngi tiit pour si tiitaange li jël si fa daanaka ñaar mm. di yat mm. ak loxo bi mm. burhanaani ñaari preuve lañu yoo xam ne ñoo la jox min rabbika yu bàyyi ko ci sa boroom pour nga dem fan ila firawna wa malahi ak mbooloom firawna mooy kuréelam innahum naka ñoom firawna ak seen waa kër ak tuwaaram kaanu nekkoon nañu xaw man di am nit ñoo xam ne parce que ñu saay saay lañu mm-hmm. ñu doy waar ah hmm. Moussa ne ko nag d'accord ba ñu maa dem hmm. waaye nag hmm. ah léegi de mu cóol de am na lu fa xewoon nag te xam nga ko te jéggalu woon naa la ci te xaw ma situation yi ni mu demee suñu borom naka demal rek naka demal rek maa yor si ci mbekkaay aywa xaala yent yàlla Moussa ne rabbi sa sama borom de fàttewoo de mm. xam naa ne xam nga mm. waaye nag foog ma fàttali man mm. inni man xataltu rayoon naa minhum ca réew ma nafsan mosoon naa faa boom bokkoon ci gouvernement bi te nag dañoo tegoon mandat d'arrêt ne fuñ ma jàpp naa naa jurti wala ñu rey mm-hmm. faa xaafu ragal naa lool an yaqtuluun ñu rey ma su ma àggaati ci dëkk waa xiisa mbokk hmm. Haaruun boo hmm. moom sax de hmm. af saxu moo gën a mën a leeral gën a mën a communiquer min yi ci man lisaan ci aw làmmiñ ndax man daal li may yëg dama toll ci ay sotaxaal xam nga loolu nit yàlla yi wax sotaxaal toll ci di wax yenn wax yoo xam ne suñ demee ba gën di ku leen lii ñu ne waxuñu loolu day am ci nit yàlla yi waaye nag soo ko xàmmeewul mooy lool léeg nit ñi moom da gis ñuy jël ay sataxaat comme mm. yooyu nga xam nit yàlla suñu mandé ci pays yàlla bi mm. yooyu la ñuy waxtaane mm. ñu jël ko di ko ci penc bi di ko waxtaane tabaarakallah te duñu wax la nga xam ne nit yàlla bi ba mu ànd ak sagoom loolu la doon wax te la a war a waxtaane sax ci la de hmm? yént yàlla Moussa nag na man damaa nekk ci ay sataxaat nekk nii su ma waxee niveau bi yéeg na yéegin woo xam ne gaa yi duñ mu mën a dégg damaa toll ci xaalisul fanaan dégg mm. kon nag foofu nga boole maa kee nga xam ne moo nekk ci xaalatul baka mm. su niveau bi yéegee moom mm. mu mën a wàcc niveau bi mun naa wax ak man mun naa wax ak ñee di Haaruun yabal ko maa yi mu ànd man mu nekk koo xam ne ndimbal lay doon ku may dimbali yu sot jëpp nii nga xam ne dina ma dëggalal lii may woote mm-hmm. inni man sax akaafu ragal naa lool mm. ay yukazibuun mm. ñu weddi ma sax mm. man daal damaa jàpp ne daañu wax li may wax dëgg suñu borom ne ko matu ko yow kay defal li ma wax rek continuer dana baax nag suñu borom ne ko sana suddu daanu dëgëral adu dëgg sa përëg bi ak ke sa mbokk mooy daanu dëgëralee yéen fi yàlla ba lépp la war na am ci jaaxle mm. jaaxle googu dina dañ mm. ndax moom xam na nu muy communiquer nit ñi nu muy jëflante ak ñoom mm-hmm. wana jaal daañu def mm. lëkkumaa ñeel leen yéen ñaar di yént yàlla Haaruna ak yént yàlla Muusa daañ leen defal sultaan ak gañe mooy pouvoir goo xam ne day tax kenn du mun a agsi ci yéen falaa yasiluna duñu mës a joti duñu mës a yegg si ilaykumaa ci yéen ñaar ak lu ñaaw bi ayaat na suñu kiimaan yi mënuñoo mm. maanaam mënuñoo jotali lenn lu ñaaw mm. jëmee ko ci yéen muy nag dem leen mm. jaayaati naa ànd ak suñu kiimaan yi antumaa yéen ñaar di yént yàlla Haaruna ak yént yàlla Muusa yéen laay wax kon dina dem wa man ittabaakumaa ak képp koo xam ne ànd naa ak yéen alxaalibuun yéen ay gañe yàgg-yàgg fu waar bi moom Firawna da kay ñàkk jëlaat ko tegaat ko seen loxo di gouverner ni ma ko bëggee wala maa jaahum ba mu leen ñëwalee Moussa hmm. yént yàlla Moussa hmm. bi aayaatinaa sunu ay hmm. bayinaatin mbir mu nekkul leer naññ xaalu waa dëkk ba ne gouvernement ba ne maa haada lii daal nekkul illaa sihrun lu dul ak njabar muftara ba di bañ duur daal ñoom ñoo ko wax crée ko nii kem pour naxe ci nit ñi waaye du sotti de ndax ñun maa sami'naa musuñu dégg bi haada ci lii yenent bi di woot di yent yàlla Moussa musuñu ko dégg fi abaayinaa ci suñu baay al awwalin yu njëkk ya maam ñoom lii yent yàlla Moussa woote ci yàlla ji ne yàlla ji lay wooteel ñu daal musuñu dégg kenn kuy woote liñ mel kon nag moom fu mu ko xaala yent yàlla Moussa ne wala waxaala wax na moom yent yàlla Moussa rabbi yow sama borom daal rabbi sama borom aalama mm. mooy aji xam mm. bi man jaa ci képp koo xam ne mm. indi na bil huda ci njub min indihi ci xam ne kan moo yor koo ci moom ak ku yor leneen bàyyi koo feneen lépp la sama borom xam kon nag ñoom la jaadu rek mooy teggin te bañu rëy rëy jéem a jëfandikoo lii ma wax wa man itam kan mooy kan lay nekk itam law di nga ñeel ah kabatu daal mu jëkkër bu ñu sant kan mooy texe wala kan mooy texee kooku moom yàlla rek a xam dégg innahu li am mooy laa yuflihu du texe az-zaalimuuna tooñkat wa qaala wax na firawna yaa haamaan xam nga ah du loolu yaa ayyuhal malam ah ngi jég hmm. euh, xam nga yéen ci yàlla Moussa jàngal ne yàlla fi ne moo fi nangam nangam mm. wax ba mu teer mm. mu ne comme dugal nañ ne am na beneen yàlla bu fi ne bu dul man mm. buy signé ay article di signé ay décret yoo xam ne nit ñi dañ ko war a jëfandikoo ak ay arrêté te man man dong laa fi xam xaw ma fi keneen kon nu ñuy def damaa bëgg nga tabaxal ma benn palais palais boo xam ne boo ko tabaxee damay yéeg ba ca kaw foog ma jéem a te yàlla jooju ñuy wax ci kaw ba xam mooy kan mm-hmm. ba xam maa mun ku ci ëpp pouvoir mm-hmm. moo xool yurlu ba xam daal mooy kan daal lu mbir mi tëddee mm-hmm. tabaarakallah mu tabaxal ko ko mu yéeg fa pour bëgg a jaxase xeli yi rek ñi ko topp rek ñu bëgg a jaxase xel waxaale wax na firaaw yaa ayyuhal mala yéen mbooloo mi mm. maa alimtu xaw ma mm. lakum ñeel leen mm. min ilaahin benn yàlla xayri man daal xaw ma fi beneen yàlla bu dul man man dong firaaw maa fi yàlla beneen yàlla bu leen di wax di leen ko naxee amu fi man mii la yéegal nga niveau bi de yaaw na wàccel niveau bi kawe na faaw kët taalal lii ñeel mooy tabaxal taalal bal def ko ay muul ba mu tàkk nga defar ko taal lii ñeel ma mm. alatiini ci ban bi sa mm. yàlla lii defal ma ci sarxan benn pale mm. laal lii amaana man attaliu ma yuurlu idaa ilaahi Moussa ci yàlla yénti yàlla Moussa ji ma xool xool ko xool ba xam nu mu toogee ak lu mu yor ci xeeti arme ak lu mu yor ci xeeti xeeti xeeti luy taxaw gouvernement ba muy songoo maag moom ba xam for lu bët fa la mbir mi mujj waaye xam nga yow sax man sax xam naa ne sax yàlla amu fi ndax man xam naa man dong la waaye nag mm. am na gaa yi ñoo xam ne yéen i sama biir couloir bi di dute mm. jàpp ne moom la muy woote dëgg la seen xel laa ko dem mm. way ni la adumuhu jortu naa sax ne moom yénti yàlla Moussa ñeen gaa yi doon wax nga xam ne ni kàcc rek li ñu wax dara bi ci dëgg ah dama ne baat bi tubloo na borom xam-xam yi moo ah, ah. ah. di ko gis ndëgg la mooy ku yoroon tabax yi si dëkk bi yëpp. waaw ku war a tabax rek moo ko war a tabax. ah moo yoroon sànq yi moo yoroon sànq yi. <laughs> ndeysaan déggal ma loolu rek. ay biir ah. kii ma alxuraan a ngoog. Mm-hmm. moom lañ daloon ci moom sax ne lépp bi xàq. yaa neen su ma defee lépp dëgg lay doon de. Mm-hmm. waaw li ci mën a xam daal. Mm-hmm. daa ngeen ci xam loolay dëgg. tabarakallah ma ngoog. kon xamaa na ngoog. di wax ne ñoo xam ne rek dañoo tuub leen ci jàng koo xam ne. jàng nañ ko histoire am mm. gis jamonoy Firawna mm. ni mu yore woon sànce yi mm. nekkoon entrepreneur boo xam ne moo yor lépp ci Firawna ci loo xam na ko tegoon jamonoy dem jamonoy dem ba wane na ñoom ñu xam ne moom moo ko yoroon ñu wàññeeku nag tabaarakallaahu tuub ca loola wastakbara réy na huwa moom Firawna wa junuuduhu ak ah day tax la nga bëgg doo ko am buy sa digganteeg sa borom booy rëy rëylu doo yegg mm. buy sa diggante nit ñi mm. booy rëy rëylu mu resté woo mm. ah nit ñi dafay teg ne yàlla ba li nekk mu naqare da nga déggoon yàlla ba naan tazallal liman tahwa li taksiba izzatin izzatan fa kam izzatin qad naalaha al mar'u bi zulli nee naa toroxlu ngir la nga bëgg yow mi nga xam ne yaa bëgg tedd nga nee na bëri na tedd nga boo xam ne nit mi ngi ko amee ci mokk mokk lu ba mm-hmm. yàlla ji nga bëggee ci moom def nem mu ci côté rek mm-hmm. doomu aadama itam noonu la ko yàlla bindee a ne ida kaane man tahwa azizan walam takun zalila lahu faqra issalaama ala alwasli <laughs> nee na bu di bëgg tedd nga te nekkoo di toroxlu ka yor tedd nga ja dama ne tàggoola moom yóbbul cëpp ci ma ngay ami tànk kon nag aadaabul abdi tazallul wala abdu lay dawal adab ba fa ci teggi ni jaam digganteem ak boroomam mokk mokk lu bañ a rëy rëy bi la yeneen bi waxoon rek mm. alkibriya rida yi wala ci xadisu qudsi bi mm. wala azamatu idaari mm. fa man naazaani waaxidan minhuma xasamtuhu fi naar loolu yéen jàng nee na loolu ñuy wax rëy ci sama manto yi la bokk ñuy wax ak màgg ba sama manto yi la képp ko ko coog man mu ma dugal la sawara man yàlla dikk toogaat kon ñi ngi ko moom matu ko te doomu aadama ñàkk na solo ñàkk ko solo koo xam ne rëy da dafay jërul sax dagaay na xaq fi mu dëgg nu jort nañu ànd um naka ñoom mm-hmm. laa yurjauna mm-hmm. Mm-hmm. dee si leen delloo si ilay naa ci ñun dem nañ ba yaakaar daal ñoom dañuy sax fii kenn du leen indiwaat ci kanam borom ndeysaan baax lulu misra dax mosa romb benn immeuble boo xam ne chef d'état boobu ñuy wax Haruna Rashid moo ko defaroon mu am lu mu ci bind nag hmm. ne ko li ma lay xamal daal hmm. mooy yëkkati ko ko ba mu kawe de hmm. suufeel sa diine lason nga ko def ca karo teg yax yi teg si yi ci suuf yi nga waroon a jëfandikoo nga teg ci suuf bañ kaa jëfandikoo ah bu wekkee lii rek nga yor nag. Mm. préparel te xam ne yow ci yàq yi nga bokk. Mm. ëllëg da nga ko leeral sa kanamu borom. Mm. xam nga baax lu moom daawal may kenn dara. surtout Harouna Rachid bii. ñoom ñaar fuñ daje. tabaarakallaa moom amul garaat booy mën di yor. du dana ko joxalanteeg moom. dégg nga. nee faaxas naahu. jàpp nañ Firawna ak mbugal. wa junuudahu ak soldaaram yi. fa nabas naahum sànni ñëpp. labal leen. fil yam mi ci géej ga mm. comme ni ñu ko ci baaru xalsu mm. ci saari ci ginnaaw mm-hmm. fandru xoolal mm. kay fakaane naka la nekkee aqibatu zalimin mu jëg ña nga xam ne ñoo doon tooñ yàlla ci kaw suuf ba ñu jëfandikoo ay santaaneem di moytu tereem fa ñu mujj dee ba jeex mm-hmm. wa jaal naahum def nañ leen dégg nga ñoom ñooñu ñu nekkoon ay ñoom firaaw naa ci waa kër mag ay yimmatan ñu nekk kilifa yoo xam ne yeddoxum ne dañuy campagne ni ñi di leen woo ilan naari léegi kon nit mën na nekk kilifa te ñu muy woo ah dara yàlla woowu leen ca dara yonent bi woowu leen ca jàppal na ñooñu moom seen sawar a leer war lañ jëm de te yooyoo ka bis taxawaay ba mm. laa yu ngaruwul mm. su leen jàppale mm. amul kenn koo xam ne dana sañ taxaw ci kanamu yàlla di leen defal ñoom wa atbaanaahum toftal nañ leen fi haadihi dunya ci àdduna bii gannaaw ba ma leen fi jëlee toftal naa ci seen kaw laantu lu bum yàlla wa yawmal qiyaamati ci bis taxawaay ba bum ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo daan woon nit ñi ne leen ci yàlla lañ leen jëm ba pare ñëw di leen wax seen mbiri bopp waxuñ leen dara yàlla mm. xanaa ñu leen di gën a soril yàlla dong mm. ñoom ñëpp mi a max bokk na ci nga xam ne mm. dañ leen a soril yërmande yàlla wala xadaa tey joxoon nañu Moussa yent yàlla Moussa ñoo ko joxoon alkitaaba téere ba di tawraat min baadi maa ahlat naa gannaaw ba ñu alagee alquruna maas ga al uulaa gu njëkk ga nit yent yàlla nuuxiya ak yent yàlla huud ya ak yent yàlla saalih ya ak ñeneen ñi duñ ñoom du mun lii nag wasaayiram mbir moom mu nekk ak mu nekk téere yoo xam ne mbir moom aji leeral la moom téere yooyu li naa ñeel doomu aadama wa hudan ak mu nekk ak njub boo xam ne day gindiwaate wa ak yit mu nekk yërmaane ci képp koo xam ne nangul nga yàlla laallahum ndax la ñoom yatazakkaruun ñu waaru bu baax a baax dégg wa maa kunta nekkoo woon yow wa sallam bi jaanibil garbi cokkote sowwu yonent yàlla Muusaa ba mu tiyaaleeg boroomam ca xeer wa yow nekkoo woon ci côté sowwu ba dégg nga de ah waaw njaay ay sa taxaat lay wax moo tax dégg nga dafa mës toog wala yent yàlla Muusa moo doon jàngale ne yéen xeetu Seydina Muhammad sama yërmaande jiitu sama mer mm-hmm. dama leen di jox avant ngeen may laaj mm-hmm. ma leen di jéggal avant ngeen may jéggalu mm-hmm. képp koo xam ne daje man seede na yàlla yàlla Seydina Muhammad la yénantaam dinaa ko dugal aljana laa ko lëranteeg moom dégg nga la wax mu waxaat ci beneen xadis boo xam ne yént yàlla Muusa day dox ba yàgg am ku ko woo ka ko woo mm. mu gestu côté mm. càmmoñ mm. ndijoor gisul dara mm-hmm. ñu waat ko mu gestu gisul dara jaaxle lool ci àllu kersandeeg boobu ndaka ka ko woo man maa yàlla mm-hmm. ba mu nekk maa yàlla nag ca daje booba dafa rot ak du suuf su jóot mm-hmm. mu ne ko yëkkatil sa bopp waaw mu ne ko soo bëggee ëllëg mm. ma keral la mm. bis ba nga xamee ne benn xeetu ker bu fa am bu dul keroog yàlla mm. fexeel ba foo gis jirim fonk ko mm-hmm. dégg jigéen boo xam ne itam dafa amatul jëkkër fexeel bu foo gis fonk ko mm-hmm. yërëmal ñi ci kaw suuf ñu yërëm la lool leble loolu lañ lay fay mm-hmm. képp ko dajeeg man nag wedd rasulillahi mm-hmm. dugg sawara mm-hmm. doonte da nga nekk yonent yàlla ibrahima wala nga nekk yonent yàlla moussa sawara mu ne ko kan mooy rasulillahi mu ne ko kooku bu ceeb yi tooy mooma gisuloo sama aras bi foofu tourné gis ma bind fa laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah la yonent yàlla moussa mujj wax ci wax ji nag mooy yàlla damaa bëgg nga boole ma ci xeet kooku wala nga defa ma nekk seen yeneen mu nekk nag yow kooku moom moo nekk yow ko yeneen tam yeneen ngay doon mm. waaye doo mën nekk seen mm. yeneen ci kese yu gudd gudd mm-hmm. ci jotaay boobu la amee woon mm-hmm. ci mm. mm-hmm. nga bu baax a baax aywa kon bi jaay dafa xam idaa idaa Moussa al amra fekkee woo ko ne waaye ñun yàlla an soxnaa sos nañ fi xurulan ay seekal mm. ay maas mm. fa sa taawale yàgg na mm. alayhim ci ñoom al umru dund bi ba ñu fàttali ko ba ñu ji nga xam ne moom lañ fasante woon ak suñu borom dama ne waxaat ko wa maa kuntu nekkoo woon yow yeneen bi saawiyan di aji sax ci ahli madian madian la fa xew fekkee woo ko mm-hmm. kon ñun ñu ko wax comme ñu ko waxee comme waxee mm-hmm. dégg nga de mm-hmm. fii ahli madyan fatlu da nga jàng alayhim ci ñoom mm-hmm. ayatina sunu alquran ji mm-hmm. walakin naa waaye ñun yàlla kunna def na nekk nañ di la def nekk nañu mursidin di la di leen koy daal maanaam def nañ la wàcc ci yow ak téere nobe la nga nekk ab yenant wa maa kunta nekkoo woon yow yenant bi bi jaani bi tuur hmm. ca côté xeer way yàlla doon waxanteeg yàlla Moussa comme ni ñu ko yàgg hmm. naa day jamono ba yàlla di woonteeg yéen yàlla Moussa yow fekkee woo ko hmm. ndax boobu ñëwagoo ci àdduna walakin waaye yónni nañ la yow yonent bi rahmatan mbir moom nga nekk bàyyi ko ci sa moo tax nga nekk ci nit ñi li tundira pour na nga xupp xaw nit ñoo xam ne maa aataahu mosul ñëwal nit ña mm. mm. min nadirin benn xuppekat mm. benn sëriñ mosu leen a dikkal min xam li ko leen fi jiitu woon laallahum ndax la ñoom yatazakkaruun ñu mën waaru loolu la ndax damay bañ duma leen te amul lu jiitu su ma leen dumaa te amul leen lu fi jiitu mën nañoo sukkandiku ne kat ñun yàlla xamuñ ci woon dara waa xamuñ loo bëgg xamuñ loo tere Mm-hmm. walawlaa an tusiibahu mm-hmm. bu du kon jotal gim leen bu leen bu kon jot gim leen di jotal mm-hmm. musibatu nattu mooy mbugal ak yooyu bi maa xaddamati ne jiital na ko ay di yim seen ay loxo fa yaqulu daañu wax naan rabbana yow suñu borom law laa arsalta teewoon nga yebal ci ñun rasulan su mu leen woon te aw ma kenn ku ma délégué ci ñoom mu leen di wax lii laa bëgg lii bañ kon ñoom daañu daañ ma yey law laa Mm. teewoon nga yebal mm. ndaw loo xam ne mm. day jàngale li nga bëgg ak li nga bañ su ko def ñu mën ko jëfandikoo fa nattabia ñu jëfandikoo topp e aaya ti kese aaya war na kun daañu bokk boobaa minal muminin ci ñi nga xam ne dañuy gëm dégg nga de mm-hmm. fa lammaa ñëwalee alxaqu dëgg min indinaa mu bàyyi koo fi ñun yàlla xaalu wax nañu ñoom ñu gëmul yàlla hmm. nee ñu law laa utiya hmm. teewoon joxe hmm. yenent bi misla ma utiya la joxe foon na ko Muusa yent yàlla Muusa xam nga yor nag loxo yor yat ak yeneen i xeeti kéemaa waaw teewoon yenent bi di Mustafa teewoon ñu defal ko lool saa borom ne waaw ñoom buñ ma jomba awalam yàg xanaa nekkul woon di weddi bi maa uutee Moussa la nga xam ne joxoy xoon na ko Moussa ci ay xar baax ak ay kéema hmm. min xam hmm. ba ñoom ñu am fi ci wax ne xaalu wax nañu hmm. ne yenent bi ak yent yàlla Moussa saa yiraani ñaari naxekat képp lañu ñaari jabarkat képp lañu te zaaharaa yooyu dañuy jàppalante di dimbalante kenn ko ne dëggal sa morom dafay la waral loola. Mm. mooy ñoom yéeféer yi ci seen bopp. Mm. ñu yebal délégation yi ci yahud yi. Mm-hmm. ñu dem laaj leen melokaanu sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. ndax tawraat wax na ci. Mm-hmm. bañ demee tawraat wax ci. ñu commencé wax lu kenn xamul. falante nañu. dimbalante nañu. dëggalante nañu. bañ dikkee nag ñi wax leen loolu yahud yi wax leen loolu. ñu ñun daal gudd gàtt. la yéent yàlla Muusaa yoroo. ak la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. yoroon lépp dajale nañ ko sànni ko ci poubelle hmm. wayu naa nun daal bi hmm. kullin ca la yonent yàlla Moussa yoroon ak la yonent bi yoroon ñun kaasi bi yeddi nañ ko wax ay waa xaalu wax nañu ne fatu indi leen yow yonent bi di kitaabin ci ab téere min indillahi bu bàyyi koo ci yàlla hmm. wala xul la xul la ay ko maa ngi jig hmm. xul waxal ne leen hmm. yéen yéeféer yi wala yéen ñuy contre yàlla indi leen bi kitaabin ci ab téere min andi laa bàyyi koo ci yàlla téere boo xam ne daa moo gën a jub gën a jaar yoon gën a sérieux min huma ca la ci yàlla Moussa indi woon ak yéneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax yeneen bi su ngeen ma indile téere boo xam ne moo gën a jub ma fi indi mm. ak li fi yent yàlla Moussa indi mm. man attabi'ahu dinaa jëfandikoo téere booba mm-hmm. in kuntum saadiqin da ngeen wax ngeen dëggeey mm. waxuñu dëgg mënuñu kaa indi sax nag mm-hmm. fa in lam yastajibu bu fekkee jéemu ñoo wuyu ci li leen di woo pour ñu indi ko ci kéemaan fa alam yëgal andama yettabi'uun duma lu dul ñoom daal dañuy jëfandikoo di topp ahwaahum rek seen bëgg-bëgg yi kese mm. te nag boo mm. ma laa dala kenn gënu sànq mm. mim man ci mbindeef moo xam ne ittabaa topp na hawaahu bànneexam bi kaay rufu dañ ci lu njub min allah sama borom daal nee kaw suuf xam ne li muy topp yëpp bakkanam a koy digal di du gindi du jubal ak xawma gaa yi nga xam ne ak zalimin ñooy way tooñ wala xad naa yeggale nañu wala nga leeral nanu alxawla kàddu ga mooy alquran la bu ñeel leer alquran daal façon leeral bu ne leeral naa leen ko laallahum ndax la ñoom nit ñi yatazakkaruuna ñu mën waaru mën a del si waat nee na gaa yi nga xam ne aaya jooju ñuy wax nee ñu mi ngi wàccoon ci mm. yahud yi mm. ndax mm. dafa am ci ñoom ñoo xam ne ba ñu tuubee bàyyi ko ci diine yañ nekkoon ñëw ci diine yenent bi seen ñenn ña deen ñaawal naan la ngeen nekkoon ci diine ji njëkk jëf ko fa julli ko fa woor ko fa ñàkk ngeen ko yàlla na ko di yàlla na leen topp Mm-hmm. leeral ko bis ba mu leer mm-hmm. lañ gëmoon mm-hmm. avant ñu ñëw ci yonent bi seen diine jooje lépp laa leen di fay ci lu rafet fii itam bañ ñëwee luñ fiy jot a def lépp laa leen di fay naa li mooy gars yi nga xam ne aataynaahum jox nañ leen alkitaaba téere alquran wala tawraat wala injil ñun xam ne dañ njëkk wàccu alquran ñun ñoom ñu ñu wéy gëm bi ci téere ko muy daa yit laa bu fekkee jàngeef na alayhim ci ñoom mm. xaalu ne mm. aman naa gëm nañu mm. bii ci alquran ji te gëm gi nag du dara du dul jëfandikoo rek topp rek bañ a bàyyi loolu rek mooy gëm gi nag innahu ñu xam ne alquran ji alxaqu moom dong may digg na min rabbina bu bàyyi ko ci suñu borom innaa nun daal kun naa nekk nañu muslimin di way wéetal yàlla mm. min qablihi mm. la jëkk dikkub alquran doon nañu wéetal yàlla mm. ci diine yi ñu nekkoon daanañ ci góorgóor mm-hmm. ulaayka yooyu la gaay mel nii nangu woon démb nangu taw na dees na leen jox ajrahum seen i yoon lañ nangoon démb naa leen ko jox ak liñ nangu tey naa leen ko jox dara du ci naax sax mm-hmm. sabaru ndax loolu yombul na mm-hmm. nga nekkoon sëriñ ami mbooloo mm. taalibi mm. sëriñ bu la gën a di borom jamono mm. nga ànd ak say taalibi ñoo toppaat ci ginnaaw loolu yomb boobu ñu yóku man soo bëggee daraja wala nga bëgg lu kenn xam bëgg base ak yu kenn xamul doo ko def loo nekk nekk ku la gën a kilifa di xutbu di borom jamono su ñëwee sa mbooloo da ngay war a topp ci ginnaaw loolu jàngale ci rima waaye nag gars moom kenn ko da ngay lonk-lonkal fa nga lonk-lonkal moom jàpp ne yaa yor affaire <laughs> dégg nga mm. bi ma sabaru kon mm. loolu yombul de mm. te wa yadra'uuna daañu leen jañal bil xa as-sayyi'ata lu ñaaw daan danañ danañu jañe as-sayyi'ata lu ñaaw ñu koy jañe bil xasana maanaam ku leen def lu ñaaw ñoom lu rafet lañ lay fay te wa mimmaa razaqnaahu lenn ci lañ leen wërsëgal itam yunfiquuna dañu ji financé di ci dépassé te yàlla tax te mm-hmm. yàlla tax mm-hmm. ñoom ida samiu ndégam dégg nañu allahwa ay niin allahu la suñ ko waxee ci gaa yàlla yi mooy bépp kàddu boo xam ne rek ci yàlla lépp looy soxlaa lu dul yàlla rek lu dul yàlla rek ay waa aradu du mooyu nañu ñàkkal nañu solo ñàkkal nañu fayda anhu ca kàddu caaxaan yi kàddu tappale yooyu duñ ko safaale loolu mooy tax nga yegg mm. waaye bu fekkee ku ne xëy nga gëstoo kañ nga yegg mm-hmm. waxaalu ñu naan mm. lanaa mm. am nan amala suñu jëf ñoo ko moom wala kum am ngeen amalikum seen ay jëf jàmm juróy aleykum yàlla nekk ci yéen nga ko baax laa nabagi laa na tëri duñu sàkk duñu sàkkoo ànd aljaahiliin mm-hmm. ñi nga xam ne mm-hmm. dañu réer sànku Mm. sàggan ci seen digganteeg seen borom mm. soo ànd ak ñoom ñu mm. yàqal ndax dañuy wax ne inna tibaa tasruqu a jikko dafa sàcc jikko mm-hmm. dégg nga wax baax mm-hmm. aay jii mm-hmm. ñuy waaj wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi taxam boobu di Abdu nga xam ne man ko yar ba mu amee dégg nga maam ama samaani wafaatul jaddi zahanami waxaatimin waa nu sa waala sil karami loolu si ko xaj mari wax mm-hmm. ba mu amee juróom-ñetti at mm. la ka taxam boobu yor di Abdou Manaf mm. nekk mu mbaa ama guf mi mm. atam quarante neuf ans góor ga góor ga mm-hmm. góor gi nag ba muy bëgg a wàcc ñu ñëw ne yenent bi sa bàyyi taxam ngi bëgg a wàcc de ba yenent bi ñëwee nag dama leen dama koy laayee biir ne fekk yéen mag ñëpp a ngi ko wër mm-hmm. yenent waxal genn kàddu boo mm. xam ne man ëllëg dinaa sukkandiku ca kàddu googa layal la ca kanamu borom bi mm. mu ne ka gan kàddu la mm. mu nekk nga wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mu nekk sa mujj kàddu waaye góor gi sax bu ko bëggee wax rek ñoom abu jahlin ñoom nadir ibnu xaarisa ñoom abu lahab ñoom uqbat ibnu abi muhit ñoom umayat ibnu xalaf ak ubalin loo xalaf hmm. ne ah góor gi lii suwaar da ko fàttali góor gi dina ko fi jar hmm. yow ngay chef d'état bi hmm. dem ba toll ci diggante yi xale bu ndaw bi bëgg laa këlëkële ba jël la seen maam ñoom nekkoon ah góor gi kon nga ñàkk ko fàttali góor gi góor gi du la di <laughs> waaye nag li ma la waxoon huwa alladi latafa bi awliyaay fa arifuhu wala latafa ba ñu góor gi góor gi nangu waaye wuñu ko ko nag moo tax mm-hmm. loolu la yonent bi wax di ko wax di ko wax di mm-hmm. xaw mel loo xam daal yonent bi tàyyi na ci mm-hmm. dem bàyyi ba mu joxee ginnaaw nag góor gi tàgg abbas ñëw dam rasulullahi naka la nga doon wax loolu sa baay wax na ko waaye abbas moom it nangu wax baat bi ndax boobu tuubagul boobu duggagul ci lislaam ndax am nga abbas moo ngay dugg ci lislaam gannaaw bañ ñëwee ba dara la fa mun naa am waa loolu jàngoon nañ ko sax su su doon dugg moo tax ñii ne góor gi dugg naa góor gi dugg mm. ah yeneen tamit ne ko ah man de xew daal man daal laa saafara la ka maalam anha anhu mm, mm. maanaam daal naa la sax koo jéggalul yàlla fii yàlla tere gu ma ko nag xañ na ko yàlla tere baakaar di wala si na amadu an yàlla loolu nag mujj bàyyi jéggalu ga moom nga déggoon Cheikhul Hadj Malick naan wa anusal fi islami xalafu wa rajjahu mawtahu fil kufri wa niqam nee na fànn gii di fànn siira mm. nga xam ne ñooy topp jaar-jaaru rasulillahi mm. nee ñu mm. wuute ci islaamu góor gi di Abdou Manaf man asbatal mawta xabrun aylamul ulama fahlul fuhulati abbaasun ala salam nee na ki saxal ne góor gi Abdou Manaf dugg na ci lislaam mooy fóoda ju mag ji mooy abbas waaye boo demee ci téeri siira yi wuute bu rëy la fa suñu borom day jàngale diine jii loo ci nekk nekk kilifa. Mm. loo ci nekk nekk yonent. Mm. mbir mi ci loxol yàlla la ne. Mm-hmm. gis nga yonent yàlla aadama. Mm. doom jooju ñu wax xaadim gisoo ko la mujj mm-hmm. yàlla nuux. de gisuloo ko xanaa kanaa. Mm-hmm. yonent yàlla ibrahima. gis nga yonent bi kon mbir mi. ci loxol yàlla la ne. day daal. dafa am benn yàlla. bu mos a benn waay ñëw di ko tawat njabootam. mu ne ah, lay xamal daal. man ladi banayta fiihi kon daa il baara li baaniha yow lan nga ci def yow da ngaa jékki-jékki rek indi la ko sa doom la kon bàyyi kaa ki ko defar mu def ci la ko neex te moo di yàlla gannaaw ba mu ci defee lan ci war def yow mu ne innaka naka yow rasulillahi du loolu la de laa tahdi doo gindi man ahbabta képp koo bëgg. Hmm. ak gindikoo. Hmm. amuloo kàttan. Hmm. def ca tawfiix. lañ ci mën daal. mooy wax. tawfiix bi nag. tawfiixul ilaahi lay doon. yàllaa kay nangu rek. walaakin allah waa yàlla saa yahdi hmm. mooy def tawfiir hmm. mu gindiku hmm. man yashaa ku ko mu teg la xiir la ngay dem ci jàkka yi xiir la ngay dem ci fi ñuy firee alquran xiir la ngay dem juma xiir la tudd yàlla foo toll loolu yàlla nga jàppee sa ngóor de yàlla la loolu moom yàlla itam aalamu aji xam la bil muhtadiin ci way gindeeku yi tabaarakallaahu moo gën a xam ñi nga xam ne ñoo jaar ci ak yoon waaw tee ñu taxaw noonu waay sadaqallaahu ñi jàng